abdoulay Wade ñewati ci Macky Sall mom moom ngeen jox senum rew jox ko Macky Sall moom mu nek ku rax ci rew mi ngeen jox ko ndombal tank mu ne mom bu ñuy defar tali ci lay bok ku genn rew mi mo fe mo wara fexé ba mbir ma jak kuy duggu ci rew mi mo wara fexé ba mbir ma jak ku ñuy toroxal ci bitim rew mom lañ ko denk muy pencok nak ñi nga xam ne ñoo war a defar tali yi lijjanti seen voyage seen dem ak seen dikk kii nee na tali yim leen defaral jomb na cee jaar nee na buuxante beeg yéen munu ko waaye pour mu dem Podor xeeb na borom saret yi xeeb na borom welo yi xeeb borom oto yi xeeb borom Mercedes yi ba auto bi nga xam ne moom ngeen ko jox xeeb na koo teg ci tali yi nga xam ne nee na Macky Sall defar na ko mu jaar yoon réew mi nee na ba ndang avion nag jet privé la yor jet privé moom la yor moom la demee poder waaye ba mu ko monté ba pare dafa tiit effacé ko da dugal rek effacé ko fekk ñun yi tamit ñu ngi taxaw di ko xaar mu dugal rek ñu ne ko jaxeet te ba ñu demaatee ca paas ba fekk mu effacé ko ñu ne ko nga alali demb nga yor alali demb nak mom boy def do yek dañ lay xirtal nga def ki mo ñew Podor tay mo dàq dul ci jigen nak ñi matu di yek ci sareti ñu len tek ci saret yonam newu ci matul dimbali wul koy matu waye rien ka dem matu matukat ya jet privé la yor jet privé ma andi wat ñu Pulperi jall pour peur yi comprendre fi may waxe parce que dañoo gaaw ci ñoo bañ doomi Afrique terangai teraangay doomi Afrique yéen sama mbokki Podor yi Aysata mi nga xamne mo wara topato sen place seen palaasu yi Aysata mi nga xamne mo wara na fexé ba jëkkër yi mën yor jabar yi jabar yi buñu démé ba ma jur teud ci ay lali hôpital yu bax Aysata néna mom jurul jappalé woy kuy jur waye tali yam len defaral sax du ci ak yeen yeen mbokki Podor yi lay waxal ba mu joggé di len xeeb na tali bi jet privé la yor ay satangook lii day da koo def doon ci tiitaru xam ne ci ñi koy tiitaroo ci deretu askan wu sonn lañ te coono ji da cee liggéey lu baree bari yàlla mi nga xam ne nag du nit su lay def loolu tey ba mu ci bëggee tiitaru def ko ba noppi deuxième sixième sens bi daa dal di ñëw mu effacé ko ba mu koy supprimer nag fekk na capté nañ ko ñun ñi nga xam ne njabot gi ñu toroxal ba pare Amadou Diallo nee na eh, après e après nik ta mère lool la la ci tégal moy doto fi bindati et après tu restes dans le ruq et déglu ce qu'on dit parce que yow doomu xaram nga Amadou Diallo limay wax rek motax may bañ Diallo dengen mam voilà kon Aysatu moomu nak la tambalé tay Afrique gi ma leen dugalal ñu way ko ba nopi damay laaj ndax dafa bari ñoo xam ne laay fii ma def nii songu dëmm yi dëmm nooxóoru kilifa diine yi dañu ma woo di am la ñuy pliqué ma ne leen lan ngeen di pliqué man ay question la posé su ngeen ma ci mënee tontu xayrul su ngeen mu mënta tontu soxlawul ngeen di ñëw ci man est-ce que dégg ngeen ma andil leen benn nag ñu doog a jamu yàlla ya koor du jaamu yàlla ya nattaase ka du jaamu yàlla ya fii Sénégal gi rek ngay gis bokale bu gëna a ci aduna ci togal na ne julli du jaamu yalla koor du jaamu yàlla nattaase ka du jaamu yalla dem Makka du jaamu yalla man ma ci teg ne julli du deug koor du dëgg nattaase ka du deug dem Makka du deug ci bammel ken dootul laaj ko sa borom dañ lay laaj ndax xam nga Ahmadou. di ko wax ni ko xaalis bi fi nekkoon yépp foye nga ko ndax sa coro yi. te bi mu koy wax loolu booba Souleymane mu ngi yëg ni baayam daawu tëdd na ak doomam. mooy wax ne bu nga ne yonent bi ma di romb ñu ci loolu ko wax tey laa koy waxaat. yàlla bu la fayee ma xeex ak moom ndax yàlla ak mbaa xam li muy ngand ngand doyuma ci yow li nga liggéey ci ñun si yow yàlla du la fay man maa lay fay. sëriñ bi sëriñ bi malaayika yëbu ko malaayika yëbu ko ab yonent yëbu ko ab yonent yëbu ko mu ñàkk solo mi yàlla def ma def yonent ça kenn ku ci nekk kàllaama bi nga namp war nga ciy mën a julli am na loo xam ne ci alxuraan du dëgg de hmm. amut de léeb la léeb yàlla moo ko léeb rek. d'accord mais c'est pas vrai. gis gisuloon Sëñ Tuubaa bind alxuraan man du ma jàng alxuraan. la Moussa defoon la kii defoon la Yuusufa defoon ñun ñooñu li nu def ci diine. Sëñ Tuubaa du seen morom. waa yàlla da doon léeb ci alxuraan di taaxuraan xam nga di songé di filaale noonu. Sëñ Tuubaa ne yàlla ci boppam moo jël jëmmam may ma foo ma gis man Ahmadou Bamba yàlla ca boppam nga gis. yàlla ne ko tëpp ci digg bi jëlal lii ma jël li du ma laal ci sa yëf te tagguwuma la sama yëf loola neex jëlal. kon sëñ Bamba yàlla. maa ko ci télé bi. man damaa bëgg sëñ bi te sëñ bi moo yàlla. te gëm naa ne réew mi moom kenn mënu fee falu te sëñ Tuubaa joxalu ko. sëriñ bi. sëriñ bi. malaayika yëbu ko. malaayika yëbu ko. ab yonent yëbu ko. ab yonent yëbu ko. dama wax ne ni mu mel noonu yàlla mel. sang bi nee ni mel noonu la yàlla mel. bokkaal yu gën a rëy yu am ci réew mi benn dëkk laax ñemeew koo wax bu fekkoon jamono yonti la yàlla alak na Sénégal bu yàgg donc li Sénégal dafa mel dañoo toog alkande mu ngi suñu kaw bopp ndax wax yu rëy yu ñu fiy wax ak sos yu ñu sosal diine di yàq deru yonte bi sallallahu alayhi wasallam di ko sosal ak di ko tuutil di jël ay sëriñ di leen teg ci kaw borom bi subhanahu wa di jël ay bindu sëriñ ay xasida di ko teg ci kaw alquraanu yàlla bi subhanahu wa taala dama ne ñaawte fi mel nii ñun danger daf daf ñuy gétee ah, dégg ngeen bi la ubbe tay gannaaw ba ma len andile andile Afrique indi leen Aïssata tiagatal Sall wax ceeg waa Podor yi nit nag moom boo demee kër Mathiam nangu mu tek la tank mom dalay dal di tek tank ben ya dem këram ñaar ya nangu mu la tank du deug legui li yep ci réew mi la xewé ay nit yo xamna ñi ngi naan eh, señ bi malayka yabuko yonente yalla ko waaye boo laajoon sëñ bi ko ko tër wilaay di nga xam ne di nga xam ne ay ay ay ay ay ay ay ay militaire tëruñu ko ay militaire tëruñu ko ay saxaaba tëruñu ko diggante yàlla la dong ak yonante bi yàlla buusewul demul dikkul daa yeble rek mission la jox yonante bi rek comme nu ma la joxe mission wu wax mission wu malayka jot mu waaxu ndànk jëli sëñ bi fekk ñu bari lool mbooloom mun a jaxeet sëñ bi ne duraam yóbbu sa bés nag bu jotee di nga xam ndax sëñ bi malayka yabu ko wala yonente yabu ko dañ ca xam dara yii ci réew mi la yii ci réew mi la xewe ci réew mi la xewe man bu ma ci waxee sama kàddu ba pare ñu ne ma waruma wax loolu léegi nag <coughs> dama bari ñu ma woo di ma indi ay problème problème ci lan commencement laker mainyas dengan maa baga da ngeen bëgg question rek nee len man ngeen bañ ma attaquer mo gën ci yeen ngeen bañ ma attaquer buma waxé dara ngeen bëgg di dingat gis nga ñi may waxal lamiñ lañu yor say bu seen intérêt jotee dañuy wax lo leen waxal ñu bëgg ko dañ koy kon man suma len leen waxalee dara yen nekatu len ay bëkk nek yu bare nit mais dañoo am lo xamne bare bare day yegg fa mu jëm fañ bëgg mu fañ bëgg mu yegg fa fay yegg dama bëgg ngeen rek laaj ngeen man lan mo tax say bo joggé jotté ak suñu kilifa diiné lool la len di wax tay ngeen dégg lii la ben. Je suis expert minier pétrolier et gazier. Nous avons hmm. Sénégal bi Je suis expert minier, pétrolier et gazier. Nous hum. avons plus de 35 ressources naturelles dans ce petit Sénégal. bien nga 196 122 km2. superficies maritimes sont à plus de 200 km2. tes superficies maritimes sont supérieures à tes superficies terrestres. Hum. Nous avons tout, tout pour développer ce pays. Voilà, ben. Li, moi, li mom la jotee ak seen kilifa diine yi dañ ci bëgg dundu ñu ne ñun say buñ ci waree dundu ñom ñoy ñuy suul ñom ñoo wara dundu ñun wara ñoo dundu and ak homme politique yi ñu li di ko taxaté di leen ci jox seen wàll ta duñ ci wax ta kenn ku ci nekk dama leen di andil vidéo tagal leen deuxième bima jotté ak ñom xam ngeen moy lan da ngeen bëgg xam rek kay ma andil leen wax laay bañ de man lu ma leen di wax lu nekk rek damay am lu ma indi tegal leen ci kaw taabal bi déglu leen rek xaar leen ngeen wax am leen bi voilà ma di leen wax ne li ma jot seen kilifa diine yi lii laa jot ak moom lii laa jot ak ñoom li may wax nag kilifa yi nga xam ne woo nañ ma yéen laay waxal dangeen toog naan ma ak seen kilifa diine yi parce que comme yéen yalla nekul sen deun ay doomi jinn ngeen ay doomu kharam ngeen ndax bu yalla nekkon sen deun dama len poser question waral ngeen ma tontu dama len ne ndax fir'auna tabakhna na wala dit fir'auna ndax tabakhna na wala dit laaj len ndax yalla mbugal nako wa wala dit comme sen kilifa dine ñofi tok xar len ma andil len ben xaar pas parce que man dama bëgg su may wax ak yeen ma am luma ma sama baram su may wax ak yeen dama bëgg am luma tek sama loxo andi tegal len ñu wax ci ngeen tontu ma ci ma andi ci samay question samay question andi jox len ngeen tontu ma bu ngeen may tontu de len ma tontu selon ci lool parce que li ma len di wax mënu len ci daj ñaari alaykum damay bëgg ngeen di ma tontu. ci limay wax yow mbay si maa ngi ñëw ci yow maa ngi ñëw ci yow tey moom traque au doomeraam la dama bëgg ngeen di ma tontu xalifu canaba bi président yaa mën a doomu soxna canaba bii nga xam ne sama loxo la dama yor ko fi nga ko jël fi ko jële ak fi ko yóbbu ak sore ak sore hmm. ba nga toogee ci nguur gi ba di nga toogee ci nguur ba léegi. man teqal ko naa ak coono. man teqal ko naa ak te teraanga yëpp. teraanga yëpp. boo koy indi. soo koy indi. isaab si jaana. isaab si jaana nga may fekk. ñaanu ma la audience. ñaanu ma la audience. ci réew diine ju ne ci réew mi. diine ju ne. diine jox nga ko gëddaam. jox nga ko gëddaam. jox nga ko àqam. jox nga ko mm-hmm. ñaan naa la dese. man daal fi ñaan naa la dese. maa mi dugg di wan ginnaaw réew mi billaahi kon gaaf dana na bul delloo pouvoir bi dugg dem dugg roplaan dem baaxul nee loolu baaxul man daal su ma sañoon nee kooku mën a joxe da ngay nga ànd ak moom seen yaare xel di dox kon daañu attan réew mi ne équipe bi tasaaroo jigu leen tasaaroo jigu du jur dara du jur dara waaye ànd waaye ànd mën na leen a may lépp mën na leen a may lépp takk leen samay lu ngeen wax xam nga booy wër doomu xaram ba yegg ci paa yi borom sikkim yu weex yu ndaw yi boo leen jàppul comme dooméram dootoo jàppati dooméram ilaa yow mi diin paa yi nee nañ yonente bi la ñuy màggal tiwaawoon nee na yonente bi lay màggal canaba canaba nee na yonente bi lay màggal kawlax nee na yonente bi lañ màggal mais boo leen dégloo ba dégluwaat leen da ngay xamne ñom ñepp dañuy dul Macky Sall lañuy magal ta xam nga ak domeram wessul domeram deug deug deug bokay wër demal wëri ko ci magetuk sénégalais domeram deug deug deug bokay wër demal wëri ko ci magetuk sénégalais que ce soit kilifa diiné wala kilifa ada wala maget gu nek ci koñ boy wër doomu xaram dëgg dëgg dëgg boo jàppee xalab sénégalais kooku du doomu ram doomu ram gu màgget guy balaa jëriñ màgg parce que ak doomu ram weesuwul ñu defal la teranga kenn yëgut waxu leen kenn kenn yëgut jour biñ ñu leen di defal teranga yéen dong yéen a yëg ngeen toog ba bésu yonante bi ngeen génn askan wi leen tiim ngeen di leen wax teranga yi nga xamne mom lañ leen defal kon fete feetewu leen bes yonante bi seeni teranga ngeen di fete ne leen besu Macky Sall ngeen di fete waye yonante bi mom hin hana da jaar gos ngeen jaar droit parce que yonante bi ci lu lew la daan dox bi ci du dagan la daan dox waye yeen ci alalu riba ak alalu faramason ci ay doomu kharam ngeen ay doomu kharam deug deug deug deug deug mooy yéen su ngeen toogee naan Macky def na fi te Firawna nekkan fi ku jiite aw askan defa def ba def lu Macky lu bàyyi Macky Sall defagut ak yéen lu seen bàyyi defagut te terewul yàlla mbugal ko moo leen teree xam yàlla yéen xamu leen yàlla mun leen a ne Firawna deful deful deful moom kenn du ko wax ci yenn yéen Firawna def na de def moom def na waaye lu tax yàlla mbugal ko ci kaw def gu mu def maa leen di xaar de <laughs> maa ngi leen di xaar de maa ngi leen di xaar de parce que yéen a bëgg lu bon lu neex a xas nag lu neex xas ngeen jàpp ku leen di xas rek na xool li ngeen bëgg mu leen ciy xas ngeen di am lu ngeen ma wax ñii ma pose question ci maa yi ñu am lu leen ci metti dama leen ne nawet jot naay way nawet jot naay nawet jot naay way nawet jot naay maa yi woo bu jigéen bi mu waaxu aksi maa bu ma ci kaw lal bi yegg ci kawam foofu la ko joxe doom bu tudd Mouhamed Niass laaj leen ko ko man lu ngeen du ñëw ci man di ma laaj lan ngeen may laaj li ngeen war a laaj dafa bari li ngeen war a laaj dafa bari ñu ne nag moom waa kër Serigne Touba moom nee nañ ma la yow lan moo tax boo génne rek tudd taqaa man leen parce que Mountakha li mu leen di wax du dëgg dangeen bàyyi mun Mountakha ci réew mi juddoog moom ci réew mi bu baatinam matoon zaayiram mat du ngeen joge ci réew mi bay dem duggi dëkk jàmbur ngeen ñëw di fen di dajale ni ko muntaka di defee jàngal leen ko ngeen mokkal ko ngeen agsi ñëw toog ci wetam naan ko dëkk bañ demoon de nee ñu boo nekkul góor jigéen wala nga génn ci lislaam doo dugg ci dëkk ba man laaj leen ndax dëkk boobee kër sëriñ Touba am ci États-Unis waaw wala déet question la muntaka baati dem di fu mu nekkoon ba xale yi génn réew mi kon bu leen nee baati nag zaayir dina mottali seeni mbir fay fay fen question laa leen ma su ngeen bëggee ma yegg ci jaar ci digg bi c'est vrai dafay fen parce que baatin gi ci ngeen juddu seen ndey yi ci lañ leen jur mënu leen cee yor seen bopp <coughs> mënu leen cee dund ngeen jóg wutali États-Unis bu ngeen demee ba yegg États-Unis di laaj ñu ne leen ndax ay góor jigéen ngeen waaw wala déet dama leen di laaj réew mi am na ay góor jigéen waaw wala déet signature góor jigéen ñun ñëpp fi la ñu fekk yéen yàlla moo leen njëtt amu leen ak man problème. mais seeni jëf ngeen amal problème du man man li fi nekk laa leen di wax waxuma leen lu ma transporté waxuma leen lu ma fen bu fekkee xale yi dañ leen ne kuy dugg États-Unis da nekk yéefér doo ko dugg États-Unis laaj leen kër sëriñ Touba gi nekk États-Unis ndax ñooñu murit ya fa ne ay yéefar lañ léegi wala waa waaw wala déet wala ay góor jigéen lañ ma laaj leen góor jigéen gi ci réew mi mun Mountakha signé na ci pétition góor jigéen mag Macky def na ko waaw wala déet waye en tout cas Macky Sall mom la jël lak ko ci ginnaw yonante bi ci ginnaw Serigne Touba ma nan yonante bi parce que mom bëggul yonante bi yoonam newul ci yonante bi ma laaj leen bu ngeen ñibisé ba agsi laaj leen ndax Mountakha mi ngeen togal julit la waaw wala dit question rek la wax lu ma ci lu fi andi problème dama len di laaj lima wah wax am fi wala gune gi day fen wala day sos rombu ma yalla ak yonente bi jubal sama mam newuma sama mam yalla yabuko ko yonente yabu waxuma lolou dama len di laaj wax yoyu du waxi julit yena ne dem ngeen ñu ne len ku fi duggu da ngay genn ci julit ma len ndax ci li ngeen nekkon ak julit la d'abord fa ngeen joge am ngor jigen waaw wala deet signé ngeen pétition ñan ñoo signé mun nga ma ngeen togal mo mo tok signé gor jigen nga ngeen baña dugg fele ndax am na réewam waa wala déet pénaliser nañ ko waa wala déet question la dafa jar ngeen may song wala gàcce ngeen bëgg da ngeen bëgg ma accélérer dëgg pédal ah ah duma ma dëgg frein de accélérer lay dëgg damay dem question la ngeen ne ma mbay si ma ne leen waaw mbay si mbay si jaawumuwul yàlla jaamuwul yonent tëj na néegu yàlla juróom ñetti weer mbay si tëj na ko mbay si faramason la mbay si maa ko wax gëmul yàlla gëmul yonent mbay si bu gëmoon yàlla bu toogee ne bésu yonent bi lay feete bu Macky Sall ñëwee di wax ak moom dana ko wax ci yonent bi alaaji Malick daan wax wala yàlla waxu ko yàlla waxu ko yonent lan la ko wax ya nekkoon président futur président nga fi indi bu soobee yàlla nangam te wek wenga ba mel ni gaal gaal bu daanu bu mënoon lool na fexee jóg yàlla da ko dénk fukki liir ak juróom-ñeent ca juma ca ca hôpitalu alaaji malik lu ci mbay si def ba ñu ca pare mbay si daa pare dëgmal lan di laaj lan di yalwaan pour juma ba pare tuumaal yàlla kooku kenn du doxul ci yàlla question laa leen wax ngeen ne ma maay ñas tey ma yebaat leen tey ma yebaat leen dangeen bëgg rek maay ñas moom defe naa maay ñas moom bu may wax ci moom track au doomeraam la de track au doomeraam man doomeraam yi laa leen di joxoon ngeen gëm ko ay doomeraam lañ ngeen ñàkk ko gëm ay doomeraam lañ lu ngeen leen tuddee nag seen xool yi ngeen topp rek waaye bu fekkee ñoom li ñuy jëf jëfi doomeraam lañ ñu jëfal fii ñuy gis Kok kañ na orang leer wala mu neex len mu nakare len iya, yena xam après rëbbi len ma ngeen ray ma def seen mënin ray rek ngeen di def xamul len yalla déggu len dara ray rek ngeen di def nañ ñew ci maa ma doli len lo ngeen xamut man kuma len tuddal ngeen tuddu maay ñas len ko genné ci ak ndomera maay ñas liko war xam nga moy lan mu wax xam nga dafa toog ak yeen ne len da doon rek dama doon doxal bi nii rek ramas ñëw yem ci man ramas mu yóbbu lan la doon def ba ramas ramas fan la nekkoon ban état lañ ko fekkoon dafa naanoon sàngara wala mu tuxoon yàmbaa ba màndi ci lan la nekkoon question la question la te yéen am naa beneen question bu leen war a poser am naa beneen question bu leen war a poser damay poser rek ngeen tontu wala ngeen bañ a tontu damay poser rek ngeen tontu. wala ngeen maye mut pat pataaral jarul ngeen naan waaw xale yi a fi indi lii lii xew fi woo nag lële xew na fee lii nangam nangam ak nangam nangam ak nangam nangam yooyu ko jaru ko jarul ngeen di dugal kenn fi kenn seen paa yi ñoo def ñu tontu leen ci def giñ def jarul ci jarul pitim patam geeg xiili xaanaak xiini wanaa kasiraak mënu leen a tontul ñii damay laaj Maye Niass Maye Niass moom ba mu demee keer ba jàng ji ba ñëw ñun ñëpp suñu kanam ñuy dund Maye Niass ba mu ñibbisee da doon dingat Baye Niass ba mu jàng jee ba ñëw da ngeen ko fàtte tey ci taranga Baye Niass la toog de lu mu tiitaroo dégg naa ko mu naan ay waaw nee nañ da nga jox premier ministre malet malet ay malet mu andil ma nangam nangam dëkk bii kuñ ko war a régler mais Maye Niass moom Maye Niass dafa war a régler këram bàññas dafa war na régler këram doomam yi tamante ba genn wàllu doomam gi di di tam yeneen doom yi nan leen ay yéen ay doomu awsa ngeen maa ñas loolu daf ko mënta régler ñoom xalif général yi nee nañ saagakat yi fan lañ développé waaye ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom général yi ñoom seen kër yi sax réglé wu Muntaxa Baali Mbàkkeen ko té maa yi doom yaa ngi dara matut dramatu namaw namaw xam ngeen namaw namaw yaayu tafa borom beuti namaw yaayu tafa borom beuti du mooy awsa bi moom la ñuy ji nekk Maroc doomam doomaram bi nek Maroc Rida xam ngeen Rida Rida domu Maay Ñas Rida domu Maay Ñas jubóowul ak doomu awsa yi maay ñas mënta régler loolu bala muy bala mënta développer këram bala muy développer ba naan saagakat yi duñ développer moom en tant que xalif général ak mbaxane awsaam bi moom fu mu mën a développer dégg naa leen nag ngeen naan dafa demoon xaw ma ba mu demee xaw ma eh, ba mu demee xaw ma nu mu tuddati dëkk ba dëkk ba mu atte woon guerre bi nu mu tuddati dëkk ba waay waay waay waay dimbali leen ma ci dëkk bi dimbali leen ma ci dëkk bi dimbali leen ma ku ne dimbali leen ma waaye waaye dimbali ma ci dëkk bu demoon waaye Tchad Tchad nee na dafa àtte ji won guerre Tchad fay fen fay fen dafa won woon ak ñaari dëkk yi am problème xam nga xam nga réew mi ay doula leen yàq xam nga nee nañ murit bu naanee kaf nu lan ka fa Tuubaa moo dàq dul mais a ah, a ah, tarixa yépp mën dul dul mom ku gëna a rëy tuum nga ne ki ñëpp a onko onk te mën koo joxe pare ñëpp ko mën ñom ñëpp muru faf ka fariñ ay lekkatu ger lañ ay ram lañ lool kañ mako wax léegi lu ngeen bëgg da ngeen may attaquer ci lool dama leen di laaj lay wi ngeen dul am de lay wi ngeen dil aw am la la wax lay wi ci bopam ngeen dul am ay biiral kata ci nek ay mattakat màcc katu weena ci am ay dul kata ci am ay kata dawa ci am kon gone gu katt ci réew mi daw ci paay nga ko doonne bàyyi leen li ngeen di def dee leen indi ay lay dee indi ay lay moo gën teesante beeg xasante beeg bañante bi ay lay question lañuy ñuy ci kaw taabal yi ay question lañuy ñuy ci kaw taabal ji réew mi di tas paay ne duñ ci wax ah damay laaj lu fi andi problème dama len di laaj man nga naa leen saa ngeen ma ko attaquer rek ma foncé guma fi de fii guma ci biir nag guma ci biir bu ma paree dinaa jukki bu borom galon yi kat bu mag bi layen nga mom nga xamne mo don kaaje kaaje kat bi mo don wër ci yi ay way France sunu yaay France sunu waaja yaay def ko yonent ma ngi ñew ci mom dara fa dugg Buma fa joge dara wacc tiawon buma joge tiawon dara jaar kaolak buma joge kaolak dara jaar canaba canaba yi su ma fa joge ñom lal. daawu len laal mais bu fa jógee comme legi ñom dañoo am match katu data bo xamanteni ni ab doomeram la bo xamne mo raw sikket wex ci kaw wex ci suuf mom mom data bu bejaw la doome ram ji may wax mu naan Macky Sall li mu ma defar ci sama sajaada bi xam nga da damaa bëgg bul jël avion dem doome ram ji Macky bu jëlee avion dem doome ram ji yow màgget gu ñef sa bëgg ngaa bëggoo liggéey birik anta na too ko moo tax nga toog ci kaw deretu askan te doo rus kii nee na kii nee na yow tarixa lay déranger déedéet tarixa déranger wu ma de ndax ku bëgg Alaaji Malik laa ku bëgg Sëriñ Tuubaa ku bëgg maam borom tuba la li ma déranger mooy duulkat ñi ci toog actuellement ni moo ma déranger duulkat ñi ci toog di dóor ñoo ñoo ma déranger loolu da nga diggoon ci li may wax demal ci sa yenu yaay ma mat ba xam li may wax lan la dégg nga li ma la ndax bu fekkee ne rek bii bu fekkee ne bii rek pergi banyak Yang nga li ki may waxal nii nag moom moom tontu bi sadiq 092 yow ya, ya tax may tontu li taxaw di tontu sadiq sa ni muy sabar sa baay di tas sabar sab sëriñ di tas sabar momlesering la sëriñ Touba doon xeex ne leen ñu dellu ci alxuraan ak sunna buñ leen ne dafa geer ak bi buñ la nee da xeex tubaab bi dañuy fen buñ la nee dafa taxaw ak gaynde dañuy fen gaynde taxu ko woon a jóg ay nit a ko taxoon a jóg tabax ay nit buñ la nee dañ ko dugal ci fuur xeexul ak fuur waaw mën na sax mën nañ ne xeex ak fuur ndax bañ ñu lakk leen xeex ak fuur la bañ ñu lakk leen moo taxoon mu leen di jubanti kon boo nee dama bañ tarixa problème nga indi waaye dañ fi tar gi ak xagi laay bañ dafa tar ci ñun ba pare xaq mata xaak te ndufu xaak tuf dafa tar ba pare jara xaak tandiku ndax seen jëf yaa ngi may déggam doom foo ma ma ñëw de tarixa nga wax dafa tar ci ñun ba pare jara xaak tandiku xaak tuf tari xaak tar xaak tuf seen jëfi na ñaw ngoy gi ñu ngoy ci alalu ger mooy gi ñu mooy ci lu bon moo tax ma jéppi leen pour nga dégg de ndax nag ci tarixa yi am na ñu baax ñoo xam ne doo dégg ñu laal leen côté bu ne foo ci dem bërigo yu fees dal yi doo leen dégg de bërigo yu deful dara ngay dégg ñuy këndëg këndëg ku mel ni Mountakha mooy mën a taxaw naan hey eh, eh, hey eh, état Sénégal ngeen demee baati njeeg nanga bërë bërë bërë bërë mbay si toog na le weng dëng ba mel ni baraag booy waaj a daanu te naan futur président nga wax ba soobee yàlla nekk na ko ba noppi xam nga moom daa feesu bu feesoon dell ni maamam Alaaji Malick musuta dégg fu ñu ko waxale ci histoire ne ko alaaji malik alaaji malik bañ ñëwé ci mom ne ko dañoo soxla ay soldats yu ñu xéxali france xam nga lu mu leen wax yorumay taalibi ay kat la yor kenn la leen mëna jox muy sama dom, dom jooju laajal ñi nguru ñi ñëpp tay magal la ñuy tay gàmm la ñuy def tiwaawoon woote laaj leen ci ñoom waawon kan mo ñuus ndayam sol ay dalam ñew fi jaale doomu alaaji malik bi ñu suul bi tax ñuy woote tay ci laaj leen ñoom ñëpp ci Tiwaawan ba mu daj ci sët yi jarbaat yi doom yi kan moo ci ñuus ndeyam sol dàllam ñëw jaale doomi alaaji malik di ñëwoon geer ci turu alaaji Malick fii France ñu suul ko bu màggal jotee laajal ma Touba ñoom kan moo ci sol dàllam ñëw ci doomu Cheikh Ibra Fall bi ñu suul fii ci guerre bi nga naan ma damaa bañ tarixa sa jëfi ndey laa bañ ak sa jëfi bàyyi ni ñu toppee ñuy jëf lu bon ñooñu la bañ mais du tarixa xam nga yeen sul ka ngeen mën buñ leen fëggee fii rek ngeen fëll fëll doomeraam buñ leen fëggee fii rek ngeen laal fa ca des xam nga motax parfois man da ngeen ma yëngal déggal ki nan ma yamba baaxul te ñu yor doole ji ci biir réew mi man nekkuma ci réew bay ma yamba sama alal du jar yamba nga bayyi doomeraam yi dëkk ci yamba xam nga ku bayyi ku melni may ñass tukatu yamba bu bon bayi mbay si mason nga xamne fu mu tok mo nga nan xux xux xux gën na la yor pon laj len ko salatul fatiha lu mu wax ci pon ndax kuy pon mën nga jël salatul fatiha ak laj len mbay si na genn tey kamil wat ne mom du tux na leer mbay si mason ne len ko mu genn jël loxom tek ci kamil dor ne ma jiti tarikha cheikh duma pon duma nga nan ma yow bu may si tuxee ma tux bu may tuxee ma tux ci réew mi la di ay mag lañ ci réew mi di doon ay monument voilà damay laaj ku am monument boo ko tiimee doo jëm a ñoggala ko pour njool ni moom dama leen di laaj ay monument ngeen leen wax la ñuy def di ko làq buñ ci yemee waruñu koo mën a def ndem ñemewu ñoo wax do doobaraan di wala yow yamba mo la terroriser lér na ma sa bay da koy jël bi nak jëlagu ko de bi jëlagu ko waaye bés bu ma ko mënee jël keroog nga gëna torox parce que do téré na fen duma la jàmm la lay xagn parce que buma talé do to tok fen caméram yi ah ma yamba ba <laughs> yamba baaxul man dina gis sa baja bay ak sa baja nday mën ci tukh di tukh yamba am sahara du dem nuuru ci sa baja yaay rek tëgg ci di xum di xummi ñanaam ayam ba baaxul comment <laughs> ça gis ni ki dëgg bii ko mën a régler li caméra bi yéen ku leen di lijjanti régler sax sottiwut du mën a sotti lii Touba ko yónni a ah, bokk yi xool leen lii bokk yi seen bokk taalibe Fallou Galass Sylla Touba ko a ah, bokk yi di leen lii ne day maa ngi ci biir kër sëriñ Touba gi maa ci biir kër Serigne Touba gi gis ngeen ko ni ten baa ni nii mbokk yi ana ñi nga xamne ñom lañ wax ne ñoo yor walu mbënn mi ñoo yor walu Li, mi tay defar ten yi ana ñi nga xamne yor walu assainissement bi li li li li de warut kenn ku dut yeen mom li Touba Touba ko wax de. may leen ma tuuti may leen ma tuuti vidéo bi dama ko andi parce que Mountakha dafa ne xalé yi batin bi ngeen. di ngeen kii ak nangam lii kër Serigne Touba moo tax ni baatinu musta muntaxaa geeg zaahiri muntaxaa gi lay laaj anamu ba kër gi taani ndax baatin gi mënta xadd suuf lal ay rigol ndax baatin gi mënta moccum ndox jëlale ko ndax baatin gi mënta baasu kër ba ndox du fa dugg question la kii nee na ma jiji maa ngi ak say video yi nga doon kattante andil buma katé kattee wàcc de ndax kuma fi mëna tudd rek dañoo katt jur ko ko dégg ma tudd ko ci live bi rek dañoo katt jur ko ku tudd mu nakari la rek bu ko katt jurul rek wax ñu fu mu jaar question kon bo yoré vidéo bu may katanté andil ma bala ñu may eh, eh dama yom andil andil andil doom lolu daf may sétal daf may sang ba ma set wecc koko ndoxu ndoxu or la ko kenn daa mel ni ba bukki dama japp ku matul ñu japp do lek mu ñëw plongé si ndox mi na bu ëpp du yées andil ma dimbali ba ay waay publier ma ko waay publier ma ko ndax man ngeen a duul boo ma dugga dugalee ci vidéo bu may kattante rek ko noonee dana góor la la sama yaay doon woote moom la la ma sama baay tudde moom la waaye daal jàppal ne ku ma fi tudd fii ba metti la ba nga ñëw dañoo katt jur ko bu dee góor bu dee jigéen la bu amee doom nag ma wax leneen bul ma ñëw nag naan ma la sama xarit ba waxoon ñëw naan ma waay booy sëñ bi mooy ngénte waay ba ka ah kon señ bi day katam rek mu mer lol lay bañ lol de laay bañ lol lay bañ waye yow boma ma andil vidéo bu ñuy kattantee nga fexé nak ba wax ma li la fi indi ba nga mën bind ndax jaaro ci kat nang ko laaj sa ndey ak sa baay fu la jaaral ci kat la jaar wa wala dit de lol nga andi li nga andi arma la de bu mat sax sax bu dé sa ndey ak sa baay wuñ ba jur la wala ki ma tuddu ba mu metti la nga ñew di kaas ñu ba jur ko andil ma fi vidéo boobu nak nga partager ma ko dina ma arranger trop ndax dina gis ni may teyex xam ndax day melni bu may dóori marto waa wala deet góor laam du góor ka may dina deet dina ma satal di dimbali ma ci way dina ma dina ma arranger dom yeen lay ngeen amut lay ngeen amut xam nga yéen ay mbaam yuy taxawaalu moom yéeg seen ndey rek di noqi yet mooy baax ci yenn parce que yéen benn gaaw ngeen a mer ñaar fu ngeen mer a neexal leen yomb na kat seen ndey ba pare yëkkati alal jox leen zéro zéro deux cent vingt rek seen dara matut mat lewu leen dara ku dëgg seen ndey ba pare neexal leen alal la leen di jox ngeen dem pat rey sa ndey rey sa baay yëkkati alal jox la nga teral ma feccal ma sama ngénte ñap sa dem ma aj lay tang nga raxasal ma dem ta naan ma ya bax di ma tàgg seen sëriñ ci loolu lañ nekké ñom makki day deug nday talibé yi wëlbeutu ku dem ci ñom ñu tag leen ci <laughs> motax yeen yeen yeen xam nga lu leen war wok dok to nok to to laqatu wok yeen bu ñuy wax da ngeen wara tok rek di wok dok est ce que comprendre ngeen inenema drag baaxul Michael ma sinebar yu woy woy naa ko moytul ma sinebar woy naa ko aliw ñing drog baaxul bu ko ab doomu sénégal ne drag bagi ray, drag drag bagi tas ndey réew mi waaye moom ñi ciy drogué nanti bari nañ gis nañ ci benn sëriñ bu génn ñu naan ko nii ngay abdou karim nii ngay jaare mu naan kon li mooy buntu yi fel mooy buntu yi ali bi ñu wax leen rek ku bàyyiwul sinebar yàmbaa naan ak nangam doo feebar di nga feebar baaxul di ay feebare di da di jaay réew rek ñëw leen man nee naa leen man bala maa mën a wax ak yéen ma toog ci seen ndoomaram seen jikko laay àbb toog ci moo tax rëccal leen ci man du yomb de dama leen sori du ngeen ma mën a lekk bu ma nekkoon ci yéen dindi ngeen ma bu yàgg du ngeen ma sa sàq mi warax ngeen di def lekk toog jiix jaale ma fecc ca dëj ba Kata seen jeeg sori na len nak yap bi du don yap bi ya ngeen di lekk bii dama ko pobar fël-fël ko netatu ko sumbu ko ci faranal ko ci tatu tefes pour ngeen lek ma dana jafé ci yeen kat leen ndeyam ngeen ne taj guux yàbbi seen bajo baay guux bi coobaraam <laughs> aja ñu jall xara ñu jël imam paré guma nak paré guma de ma ngi ñëw nak li tambali la rek dama doon ubbi tey gàtt sa gàtt sa gàtt gàtt sa leen ma ñëw na jëli li nga xam ne moom a réew mi li fi ne ñu war koo wax <laughs> ah baax na bañ leen ma moytu rek ba ngeen ma moytu ba ma commencé jeqi seen doomu kilifa seen kilifa diine ñi ñu fi biiral tur yi di ngeen xam ne lépp dëgg la bañ leen ma moytu rek.

du ñàkk teggin du dara dafay am koo xam ne bu yeggee fenn fi waxal ak moom ci dimension bi nga mën a wax ak moom waaw ndax loolu rekk la mën dégg waaw bu ko defee kon nag nañu organiser wu te nañu bàyyi xel suñu bopp waaw xam na naa mbokkuma ndeysaan ñu ngi seet fu ne di ko jaar pour nuñ ko bloqué mais xamuñu ne man mën naa ko yóbbaale Sonko man mën naa ko yóbbaale waaw jeex na tas parteek yii yëpp ñun ñoo ca jiitu woon tasuñu woon toog fii nii dañoo tas Moustarchidine hmm? ba góor gu am fayda ga góor gi Mama Jaw ngeen bal ma baat bi mu wax ka waxoon ni tas na Moustarchidine mu ne ko tas sa sëyu ndey moo gën a yomb alors di maam ma jow mag mu amoon fayda la waalo waalo la nag waaw parce que waalo waalo yi moom dañu dëgër fiit lool waaw xam naa ci dara xam <laughs> naa am na ñu may xool di ree waaw waaye noonu la dafay am loo xam ne fayda rek a koy mottali waaw li may wax tooñu maa tey baalu maa rek mooy tax borom baale ko et Allô alo Allô waaw lu xew moom laa lay laaj di da ngay théâtre wala yow da ngay caaxaan moo la bloqué dootoo woote ci voilà xaw ma daal dégg ngeen dégg ngeen dégg ngeen loolu bon booy ñi xaw a déconné xaaral ma xaw leen a wàccee tuuti parce que damay raxas paas bi paas bi bëgguma fi ay bëgguma fi ay dof ñu yeewu laa fi ñu yeewu laa fi bëgg sëñ Mountakha sëñ Moustapha Mouhamadou Mountakha de sëñ Moustapha Sy ñu ngi lay ziar tey gëm ne am na yoo xam ne gor rek ko mën a bañ. sept milliards ñu yëkkati di la ko jox di la jëndal gëleem ak nangam nangam moo tax paa yu bari yuut <laughs> seen sëriñ nday comme ni nga waxee li nga bañ moo yuutloo paa yu bari ci seen bécco yaay yi ñu leen woowee ay kilifa diine ñenn ñi moom lañ tuure seeni rongoñ. comprendre yenn paa yi ñu ngi ci xataraayu ñu ci bari moo leen tax a noppi ne duñu wax waaye nag man am naa loo xam ne xaw na maa metti ci yenn papa du lu ma lay diingate du lu ma lay nangame waaye sama mbébét la bu ma indi goo xam ne mi ngi ci mbébétu sénégalais yu bari ñoom ñi bon bokk bon ànd ak bon tey darngu ci bon sàngoo bon di yeewoo mbon tey nëbbu ci mbon lu mu metti metti metti fexe nañ ba ñoom ñëpp ñu ànd ki waawoon bu Macky Sall jógee bëgg-bëgg gu mu mën a andi malgré mu rey xale yi ci réew mi def fi yu bon tiwaawoon dina fexe ba bëgg-bëgg boobu dana ko bokk ak Touba bu Macky jëbal jubalee Kaolack bokk kook ñoom bu jubalee Canaba bokk kook ñoom waaw man dama leen di laaj su ma nee Habib nag ñaari Habib am Habib kat kat ba ca Medina mooy borom loos bu dijj bi ak Habib mënul lekk ger doomu maam Abdul Aziz si da baax gor bàyyi leen di ruube di jaxase dafa am Habib yahóot ak Habib musulman moo am ci Sénégal ci waaw ba may wax nag. man Habib gor lay wax Habib patriote bëgg sa réew Habib mi du lekk ger Habib mi xalaa mi mi lekk lu xaleel ak Habib mi lekk lu daganut ki lekk lu daganut moom mooy ki nga xam ne moo doon porte parole mbëy si néegu ñax bu paan bi bu dëng bi mbëy si mi wane péetéem depuis la départ corona am na rek mu tëj jumaa yi huit mois damay laaj li ma wax bu amul rek nee leen ma amul kooku dafa teel a wane boppam dafa topp ci nouvel ordre mondial ba nouvel ordre mondial jógee la leen topp kon kooku ku ko fi waxal lu rafet 17 bébé yi ku gis yax wala karam na ma wax 17 bébé yi dee Tiwaawan ca hôpital ba ku gis yax os walla karam nga wax ma nu ko mbey si def nuñ ci def ñom formation yi luñ ci def lan lañ ci doon préparer wax len ma question la de ki day dul nan ma 11 bébé bu wàññi 17 bébé la Sénégal musuñu leen wax deug su ngeen amé 4 ressources naturelles dañ leen nan am ngeen genn wàll te consommer guñ ko sax fi mu toll liñu ray 17 la ñu leen di dul nan leen 11 bébé dañuy ñu sen day ku leen wax loolu day fen 17 bébé lañu lak ndayam ndeyam supp ko lek ko faramason yi deretu xale da leen dundal mbay si Mansour ci la bokk moo tax mu naan ubbi leen oyofal enquête ba te bu ngeen demee ba ca biir enquête ba ne yàllaa ko dogal ba nga dee du yaa ngi garage cott ndeyam fourrière nga boo dee di nga xam ndax yàllaa ko dogal ngeen supp xale yi lekk ko def ci seen bëgg-bëgg fas yéene toog ci ndoddu askan wi seeni xërëm laaj leen ko ngeen def ko ba pare naan yàllaa ko dogal ña def lu bon loolu ñëw toog ak yow nga di leen tagg ba di leen joxaat futur président futur raykatu bébé ñun soxlawuñ loolu ay futur yéen da ngeen fi nekk wuyu jéem a woote li seen maam yi nga xam ne lu ne def nañ ko pour ngeen jéem a nekk ay gor ngeen juddu changé ndey lépp nekk ci seen bopp may wax ngeen naan da ngeen di da ngeen di woote bésu yonante bi bésu Macky Sall kañ ngeen di woote bésu bésu bésu lekkkatu bébé yi ray raykatu nit yi naankatu deret besu fara faramason yi mom ñan di wote soppi ko nak ci deret ci bop askan ni ku xamul rek di top waye ku xam walaay nga xam ne yaa dox ci sa kaw safara wala kuy dox ci yeen bes buy sukurat lay comprendre ci limu mu doon dox lumu waye boba day fekk wëlbati ku wess ñi tax nak yalla ko wax yalla ne amna xol yo xamne mako encastrer ak xel parce que sama safara ji da wara am borom motax tax ma bàyyi fi iblis muy dox wax lay bañ na sama wax ni ji wul borom xel yi ñu kasta kastre yi yàlla daf mën a jéemal a rek ñi nga mëna a ci gétt gi ñi ci dess bul som forcé amu fi musu leen dégg yonante bi yoro yépp nan tuub mbaa dee déedéet musu ko wax musu ko wax réglé leen nak boy bayi leen li ngeen di def tay leen rek déglu ma mak sen bàyyi tek na juroom fukki at nak fi mu tali, nii kenn mënatuma jiinu gone de ti jéem a di ma diingat moom ma ñaf sa ndey parce que kenn jiit fi mu toll nii ku ma waxati gone nga bir, xam fi mu toll nii maa ngi seen mi la de parce respect gi ngeen jox paa ñi leen di tufli ngeen di rayu, moom ngeen ma waral fi mu toll na leer de voilà na ñëw man di leen ñu daal di nag ubbi ñu pelloo le temps imaam di ñëw su ñëwul nag du ma ko xaar imaam moom xam na ma sax nekk fii di ko xaar moom laa dul def caméraam yi yor nguur goo xam ne <coughs> lekk ay nit rek lañ fi nekkee nañ déglu bi nañ déglu bi kan moo bëgg rey ki nga xamante ne médecin traitant wu président Ousmane Sonko mais surtout lan moo tax ñu bëgg ko rey moom mii di professeur Khalifa Ababacar Wade médecin colonel anesthésiste réanimateur u hôpital d'instruction des armées fële si hôpital principal de Dakar moom mooy médecin traitant wu président Ousmane Sonko jamono jii kaawu Ousmane Sonko nag daf ko jël personnellement génne na ko ci ay jafe-jafe ci wàllum wër-gu-yaram lu bëree bëri depuis bi ñu ko tegee loxo ba jamono ji mën naa sax ne sauvé na ko ci lu raw sax loo xamante ne ne wàllum santé la moom kese ndax ay pexe it sauvé na ko ci wante di ngeen ci xam dara ndax wóolu naa ci président soo ko xam naa ne ne li tax état bii nii am problème ba ñame wuñu koo bàyyi jour bu génnee lépp dina leer léegi nag pour kaawu professeur Khalifa Ababacar Wade démb ci dimanche bi professeur dafa génnoon di doxantu ak velom bi comme nu mu ko tàmm di defee weekend bu jot démb ndax bu mu génnee dafa am ku ñëw daal di koy fël très violemment ci velom bi mu daal di daanu perte connaissance ba pare ki ku ko def daal di ni mër réer na ci jaww ji kenn gisu ko kenn déggu ko kenn xamul kan la amuñu benn nouvelle nit boobu donc moom loolu noonu jëlee na ci ay blessures yu graaw graw graaw ba ñu daal di koy jël daal di koy hospitaliser ci moom propre service bi nga xamante ne foofu lay liggéeyee service réanimation foofu lañ nekk di ko fajee jamono ji moom nag professeur bu mu ximmalikoo ay gendarme ñoo ko fekk ci fa mu daanu woon daal di koy jël di ko laaj lan moo xew nangam sàngam te moom xamu ko sëgam moom lañu fël mu daanu donc moom médecin colonel mënul tontu question yooyu noonu te moom xamul lan moo waral nit ñëw di ko fii ci kaw veloom ba mu daan te nit kooku daa di daw donc journal yor yoor tey dafa xëy ci lënd bi di laajte est-ce que bu nekk woon médecin traitant wu Ousmane Sonko ci jamono jii ni ko dal ñii dina ko dal est-ce que bu nekk woon médecin wu ki nga xam ne moo di président Ousmane Sonko ki ko fiir dina réer nii kenn du ko gis kenn du ko dégg te kenn mënu laa wax ndax enquête bi dina joxe dara te journal yoor yoor bi tamit mu ngi posé wa ay question di wax ne ne mais ay gendarme ñoo ko jël daal di ko yóbbu fële nga xamantene ni moo di hôpital principal fekk ko ci lieu yi yóbbu ko de pare bàyyi ay question yu bëri est ce que dafa am nit bu bëgg a débarrassé wu ci ki nga xamante ne moo di professeur xalifa Ababacar wadd jamno ji est ce que tamit fii bi nga xamante ne ne moom lañ ko fi yëg fii la comme yi ñu tàmb di gis ci tali bi wala boo xamante ne c'est prémédité maanaam dañu togg toggaat ko ba nga ne ne ne jour muy à vélo ak nuñ ko mën a à sa vie parce que instant bi député yu bëri ak ay président Ousmane Sonko wala ay yu xam en danger nga nekk journaliste nga nekk politicien nga nekk médecin nga nekk sax nerf bi nerf bi ya doon rey sénégalais sax jamono ji moox leen ko ils sont ñoom si seen bopp en danger donc ndax dafa am ay nit yoo xamante ne tey jii dañu am intérêt si rey yenn nit yu nga xam ne dañu jege ki nga xam ne président Ousmane Sonko ndaxte moom fexeel nañ ko fexelati ko Ousmane Sonko yàllaa teg loxo ci moom baleen ko muñ leen am na ndax ay mystère yu bëri yuy tourner autour de li nekk di xew jamono ji ñi si réew Sénégal patriote yu ñu ngi tëb di dal si réseau yi di wax di di def ay ñe mais si vous saviez ce qui est en train de se passer dans ce pays de voyous de bandits wallahi tamit ci ki président Ousmane Sonko donc journal Yoor mu ngi xamal ne am enquête boo ne dinañ ko mu ngi ndax ginnaaw bi nga xam ne journal Yoor Yoor joxe na information bi kii di l'honorable député Guy Marius Sagna mu ngi def benn post ci réseaux sociaux yi di wax ne ne ne ay ati at ngi nii maa ngi rêvé di bëgg ne damay ut vélo pour mën a di dem di ci liggéey yi pour mën a déplacer wu ci biir Dakar mais ñamewuma ñamewuma jënd vélo parce que xam naa ñi ñu ko sekkal xam naa ñi nga xamante ne ne ñun ñooñu la ñuy jàkkaarlool dañu pare pour def donc maa ngi ñaanal ki nga xam ne moo di professeur Khalifa Ababacar Wade mu tane ak jàmm ak salaam mu jóg taxaw donc loolu laa leen andiloon jàpp leen ne ki nga xam ne moo di professeur Khalifa Ababacar Wade rëcc na ko comme on dit en français il a échappé belle mais nag s'ingérer dans nos affaires beaucoup de personnes aujourd'hui au Sénégal et en dehors du Sénégal librement et non pas parce que la France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 te yàlla def na yéen ñi mu wóolu woon yéen a ko trahir ba ñu tëj gis naa ñenn ñu ma naan waaw Jiji da ngeen war a wax ci parrainage bi <laughs> da war a wax ci parrainage ma ne leen képp kuy taxaw di wax waxi parrainage xamoo li xew ki la xool defoo waxoo tinoo dëppoo kees taxaw defiyee ko ne ko quinze ans dama lay may bunt bi gën a gaaw quinze ans laa nekk impôt et domaine entreprise yi gën a rëy contrôlé naa leen li ma dugal ci xaalis biir Sénégal kenn xamul nu mu toll dem leen ngeen wari foofu yëpp su ngeen déggee ma lekkal leen fukki dërëm tëj leen ma avis bu ma kenn tuddati dama leen di laaj question laay laaj waa kooku bu leen mayee loolu yëpp ngeen wàcc loolu mu leen wax jiñ ko terrain jiiñ ko mercalex jiñ ko fi ibaadu jiñ ko terroriste jiiñ ko salafis jiiñ ko lu leen neex jiñ ko ne bu faloo tarixa yi dootul amati nangam ak nangam ak nangam yooyu yëpp ngeen jiñ ko ko dara amut ngeen ñëw séquestré ko ne ko doo wër ci dëkk bi bokkoo ci dëkk bi ba mu neex leen ngeen li ñuy def nii sax wërëwraatoo la nañ ko daal di jàpp comme rey nañ ngeen wàllu yëpp jàpp ay nitam yëpp ana mbay si ana maayi ana muntaxa bu fi nekkoon dina wax waaye tey li mu waroon wax yëpp wax na ko ba pare nee na leen. faramason yi préparé nañ ba pare faramason yi ki ñu préparé koku la mbey ci andal kon mbey ci faramason la faramason yi préparé nañ ba pare may ñas koku la andal kon may ñas faramason la faramason yi préparé nañ ba pare sëriñu canaba canaba borom ram bu ñepp ndayam boobu mom ki ñu ci faramason yi préparé ba pare buñ leen né ci diiné lañ leen di wo ñu ngi leen di xëcc ci faramasonerie parce que ñom faramason yi lepp lu ñu tan ci lañ and ñu xam ko ñun ñëpp ñu Ousmane xamé nañ ko xamé nak bañu paré dañoo and ak seen mbeuru faramason yi dugg ci kër kilifa diine ngeen dégg mbey si mu ne jël na touram jël na jël na position kooku jarota seeti ñoom lu coow bari bari bari amuñu kuñ koy rusé rusé wuñ ko seen talibé yi rusé wuñ ko kenn danañ feeñal seen sëñ Moustapha dégg naa sa mu wax ko <coughs> dégg naa mu wax ko xaar ma xol ndax awma vidéo bi man ay seede laa bëgg ay seede laa bëgg kon yéen su ngeen taxawee naan ma dema defal la nangam defal nangam déedéet gis ngeen Casamance ñu ngi noonu di dugal ay armée ci biir dañ leen déglu bi ba pare ñu jàll. ni ma dañu bëgg a ziyaara ji xalifa bu Tiwaawan bi ak xalifa bu Canaba ma ne ah, Il ci des di d'accord bu bi parce que déjà prononcé wu eh, sera le, prochain président de la République du Sénégal te comme man d'accorduma ci loolu kon jarul ngeen fay dem waaw waaw fay dem ñu ni ma militant yi tax sax dem ah, ko defee kon nag nit daal bu la faalewul da ngay toog di ko xool waaw. ok lii mooy wax ji c'est-à-dire sénégalais yi au fait <coughs> sénégalais euh, Thiam li ngay laajte na leer dégg naa la nga ne pourquoi vouloir ôter la vie des gens comme ça je ne comprends plus rien ôter ci ni ñuy wax ci sëriñ si wala ôter. ci serigne si niñu def la vie des gens un des deux bëgg ñoo forcer katu nit leeralal sa wax parce que yow na rofé yag ak sa té nga dem may laaj nak ñom serigne mustapha ak ñom papa Ibrahima Dramé ak ñom adib si ñol Fuuta nak gis na la nga tog ak Moussa Fall ñol njool Fuuta li fi alaaji Abdou bari wut de te ñaanuma ñu faas ko nak gis nga ñu bon ñi am nañ fulle ku ñu bëgg takal ci seen ak mbon danañ ko def num leen soobe te duñ ci rus yow mi baax fexel lo mën laqatu ñu bon ñi ci kanamu askan ñu bañ la takal di la duulal laqul ñol dañ la fonk bëgg la ñool mosoo taxaw ci caaxaan bul ànd ak caaxaan kat mag mu baax ma day bañ ko laaje dafa ne laaj ma koy saxarit ma wax la ki nga doon njool bul tok ñom bul ak ñom am nañ fulle ju toll ni nak luñu bon bon bon bon bon ku set dinañ fexé ba trouver ay moyen takal bul nango tak bu ngeen fa joggé dama len di ne ngeen dimbali ma ngir yalla rek gis nga porte sàmbur yi ñi tek seen bop yi sans len style wuti len ay tengaado ngeen koy tek seen bop yi bëgg ngeen baxana lool parce que man sumay tégal bay tégal borom porte sàmbur rek ku baax bu solé porte dañ ko ci bolé fekk bokku ci dañu bari femme té man nak dama am numay dem ak ñoom dimbali leen ma rek wut leen yenen fenn lolu dama leen ko ñaan nak mag yu baax ci réew mi yépp bayi leen di sol mbaxana bayi leen karaw gi leen yalla may sax ngeen koy teg nonu mané ne ndax parce que bo leen di tégal ci mbaxana bi lay joggi ci bop bi lay yéeg wacc sarax leen ma ci lolu est-ce que ma voilà ñu ñëwaat wacc ñëwaat wàcc bàyyi lolou dama len ko ñaan rek pa bu baax bu ne buñ lay woneete ci télé téggil mbaxana bi bul nirok ñom style parce que buki nak mom bu duggé ci dëkk di rajaxé diko di diko rajaxé di bu yaggé lu nirok buki rek ñepp daw bu len nangu di nirok ñom dara wut len benen fem même am ben tengade bu ngand yoy yi paa yi doon sa mam amon na ci <coughs> wut len yoy rek wala ngeen bayyi karaw gi len yalla may ñu mën leen ràññaatle ak ñoom mën a xàmmee bu kii parce que fi mu toll dañoo yore torche di nit yor ay yet di dóor dégg ngeen ma dama leen ñaan lool kii xaaral ma bloqué ko nee na jijji looy liggéey sa loxo yi gis nga ko man yooyu laay bañ fii xanaa xama loolu déglul li ma lay wax nii mooy sa njëriñ pétrole beeg gaz bi nooy def def ba jot ci ak ñi la ko xañ moom laa lay loqatil amoo jot xëyoo gontuwoo loolu laa lay woon nii est ce que dengen ma bu may wax ci lolu ci leneen lo dugg rek day tax ma génn la ci bi li nga waron am comme jeriñ doto ko amati est ce que yaa may deg loxo yi demal nga talal yu mun loxo yi day jaamu yalla bu xeye bugul ko ko xas lu dagan rek la bëgg di dundé laajal mun taxa ndax loxo mi ni la mel wala nga ubbi yu mbay si masur ndax ni la mel dégg nga la yi loxo yu gore la dégg ma voilà France la ne fii la produit fekke baax waaye lijjantiwu ma ko falaa kon ñu ñëwaat toujours rek ci thème bi gars yi ma naan jiji euh, waxal ci parrainage bu ngeen yeew woon dégg Ousmane xam fi Ousmane di waxee du ngeen wax waxi parrainage cooki fee la leen waxoon cooki ki la topp defoo tinoo mu jàpp tëj barricade ba mu neex ko mu yenu yóbbu tëj rey li mu war a tuur ci deret Sering cep na fi ken waxut ci lan jamono bi nga woré ba ngon jot tay yonante bi la magal nenañ magalu nañ yonante bi de malati lañuy la malati lañuy magal na leer parce que buñ don magal mag yonante bi di nga dégg yonante bi ak li yonante bi don bañ muy injustice injustice ñom ñep liko ko ci muntaka ba wacc suuf moy seen Abdou Diouf ko wax ya ngi deg kon dama bëgg ñoom ñëpp ngeen poser leen question ndax yonente bi li mu doon xeex injustice si la bokk waaw wala déet moom ngeen di màggal nag gàmmu ngeen wax de gàmmu ngeen wax de kii nee ma yow da nga reew bàmba rek bàmba rek amaguma sa tontu yow mënuma laa tontu boo indi woon lu xaw a lu xaw a civilisé sax mu mën laa tontu mais li nga indi amul njëriñ amul dara dama leen di laaj injustice boobu kan moo ci taxaw ci ñoom ñaata xale lañ rey ci réew mi ñaata lañ tëj ci kaso yi ñaata lañ xañ réew mi boo leen waxee ñu ne makki liggéey na dama leen di laaj man andil leen benn question ba pare duma ko wax nag seeni doom a koy wax ma andil leen benn question ñu continuer question bi dama leen koy laaj question bii dama leen koy laaj man léegi dootuma wax seeni doom laay indi rek ñu waxal leen ba pare ma topp ci dama leen di laaj lii billaahi wallahi dama toog may dégluwaat samay émission yoo xam ne daan def naa ko bu yàgg mais ma déglu émission bi ba mu jeex mais mbaar émission bi ba mu jeex Macky Sall rek laay waxtaane di ko tagg moo fi def autoroute Ila Touba mo fi def assainissement mo fi def nangam mo fi def nangam mo fi def nangam ma deglu émission bi ba pare ma saga suma bop mané man imbécile la man man traiteur la ndekété pourquoi ma jël askan wi ma jëndé leen ak Macky Sall pourquoi may fen loolu dama ko wara dindi sama bop motax mahalat ma xalat ne ñun ñëpp ci ñun lañuy bayyi xel askan wi. ki ci ñom yi la bokku moo daan wax ba xëy wëlbatiku moment bii nag la waroon na sol dàllam dox kër kilifa diine yépp laaj leen ndax na def na waaw walla déet buñ ko tontoo waaw mu ne leen est-ce que yàlla mbugal na ko buñ ko nee déet mu xam ne paa yépp ay fenkat lañ du dëgg kii moo wax lii man waxuma ko kon xam nga ki def lii yenay xalaat parrainage yenay xalaat élection am ci réew mi yenay xalaat nangam ak nangam copie collé lañ leen bëgg a tegal ngeen buuxante ñu ray leen ci te du leen jëriñ dara xam nga luy faj mbir mi def comme ñoom dañ leen woon yoon bi muy buñ la wutee amuñu la ñu jubal sa doom bu ngeen jëgoon kenn ku ñu ray ci yeen ngeen ray ci ñoom kenn ku ñu ray ci yeen ngeen ray ci ñoom kenn ku ñu ray ci yeen ngeen ray ci ñoom kenn ku ñu ray ci yeen ngeen ray ci ñoom kon mën taxaa du wax léegi ñu carte gi leer Lego Ousmane am jam mais ñak deg Ousmane motax ngeen tok di wax waxi paranas ak nangam tay ñu ngi dugal armée bi Casamance di préparer sen xex ana ngeen docteur bi di militaire ben way wo mané ma militaire nak war nañ préparer sen bop ma ko militaire duñ préparer militaire ban militaire moy préparer militaire ñu fi né militaire France mo fi né ku ñu ray ci réew mi France la ray ku ñu ray ci réew mi France la ray France mo ngemb bañu la ray France la ne maa ko fi waxee ta kenn duma ma rëbb si gisoo taalibe Macron gisoo taalibe euh, euh numu tuddu Faidherbe mi ñu leen sampal fofu giso talibé kenen ak kenen seen sët fi ni bas Abdou khader doone ab seut non la Faidherbe ba ameb seut damay laaj lima wax budul deug ngeen na ma du deug France gisuma kuñ fi jaamu ndax li daw damay laaj keneen ku ne France gis kuñ fi jaamu ndax liggéey ba mu liggéey wala lu mu xeex wala nu mu nangam wax leen ma ko gisuma fi ko am talibi gis naa fi ay kër yu am hélicoptère amul ay dunguru ca buntu ba ay géwél topp ñu leen keneen topp leen damay laaj damay laaj question lay laaj kon yeen bu ngeen tegee seeni dëmb ñu amul njëriñ di leen jaamu foofu la ak ndoomeram daa ba pare ñoom ñu nangu ko foofu la ak ndoomaram tàmbale ak nappaate jël leen. gis nga ñun waruñoo waruñoo toog rek di yiir li yi def gis nga li ñu bind fii famille bi loolu la ñu waroon a bindal Macky sàll Amadou Marème Faye Sall eh, kii Alioune Sall eh, bindal ko Mansour Faye premier ministre bi ci boppam. bindu ko ci turu Macky Sall ñom ñep atteinte à la sécurité de peuple ak mboolem sëriñ ci nga xam ne gëreum Macky Sall parce que da leen jox xay te moy ray ni ñu ne ciel ñu ñu ñu demander né dañoo wara être arrêté wala mandat de dépôt ñu ne nañ bindu suñu tracte tek li dañ ko warono bindal mboolem sëriñ buñu gis ngay joy fi wala nga and ak gouvernement bi wala mu ñew sa kër nga diko ko sant parce que da la jox xaliss te nangoo ko wax dëgg yow ti dans une ti dans une société de terroristes qui est de terroriser le peuple mais atteinte à la sécurité de l'État est-ce que loolu peuple bi ñoom ñoo am loolu ñoom ponkal yii di fi daje guddeeg bëccëg suba ngoon sëriñ si bokk ci loolu gouvernement bi ñoom ñoom atteinte à la sécurité de peuple ci la ñu nekk ñoom dañoo terroriser peuple bi nañu bind benn traque bu toll noonu def ci mboolem ku ci sa tournée boo dee sëriñ ak foo mën a dëkk boo bokkee ci homme de loi bindu ne dañ leena a a def mandat dépôt parce que ñu ngi atteinte à la sécurité du du du du peuple voilà ñun peuple bi ñom ña ngi bëgg a rey li ñuy accusé nit ñi ñom ñoo ci nekk dañ leen xatimal foy bu ngande def ci mbolem seen tour wone ne dañ leena a yobbu a mandat de dépôt dañ leena a japp a publicité ko comme li ñi publicité li si parce que même bind li ci turu rek dafa dafa dafa garaaw dañ leen ko def ñomit commencé ci premier ci Macky Sall ci jabaram ci doomam ci sëriñ si ànd ak Macky Sall ñoom ñoom ñu bind leen ne dañoo nekk atteinte à la sécurité du peuple ñoom ñooy tiital peuple bi ñoo jël alal yi ñoom ñoo ñoom ñoo yu dul jeex te loolu dëgg la dañ leen a war a def sous mandat de dépôt dañ leen a war a jàpp loolu ñu téye ko fi ëllëg bu ñu war jàpp fekk fooy gaa ngi ba pare xam nga ñoom dañoo mën a jàppee jàpp ñoom dañ leen a war a jàpp nag kon ñun nañ ko bind ñu te teg ñi ñi jàng anañu boole leen mbooleem sëriñ si ci bopp mboolem sëriñ bu ànd ak Macky Sall mboolem politicien mboolem ku fi mas a wax tooxi doona mboolem ku seetaan lii mboolem mboolem yëpp ngeen boole wan leen ne ñoom ña ngi ña ngi ña ngi tànte ci ñàkk sécurité peuple bi peuple sénégalais au nom de dix huit millions sénégalais yëpp ñii ñoo taxaw ngir xañ leen seen adina dañ leen a war a def mandat dépôt dañ leen war a arrêté immédiat dañ leen a war a arrêté mandat international mais mais bind ku ne mën nga ko te loolu moo war nekk te dina nekk incha allah dañ ko war a léegi nag di ko jokk le ci suñ biir mboolem ñi fi nekk di di di fen comme Tange Tandian ñoo ñëpp dañ leen cee war a boole ñiy feneen Ousmane Sonko ñi yàq xeet bi ñi aji saar ñoo ñëpp dañ leen war a boole ne ñoom dañ dañoo dañoo yàqal peuple bi dañoo yàq suñu suñu dundin bi Mame Mbaye Niang les procureurs ñi fi jaar yëpp dañ seen tiit da cee war a nekk que ñoom dañoo atteinte à la sécurité du peuple té dañu wara nek su mandat dépôt dañ leen wara arrêté loolu dañ ko wara bind té ko denc ko buñ ko defut tam ñu xamné peuple bi xamnañ né ñoom it yakal lañ ñu suñ dundu gi mais ku ne mbalam la ci rek ñu ne da ngaa na atteinte sécurité de l'état pour lan ñoom ñaata yoon lañ atteinte sécurité comment duma ko wax sax ci français di ci sonn parce que loolu du wax ji wax ji dañ ko wax ci sunu làkk dañoo xatal suñ dundu gi dañoo bund xatal dañoo rey suñu nit dañoo jaay suñ alal sëriñ si ànd ak ñoom di manipuler xeet bi sëriñ boo ci ñëw Macky Sall lay gërëm du ko wax mukk li nga def ci dëkk bi te dëkk bi lañ ko falee woon li nga ma defal rek mel ni sët géwél mais li ku ko waxut tam joxoñ ko ab sëriñ bu la Macky Sall defalee ba mu la koy def kenn yëgu ko wax wax boo koy sant nga sant ko bu ko kenn yëg bul xaar ba gàmmu ñëw wala màggal nga taxaw di tarale mel ni kuy jàng alxuraan di wax lu Macky def parce que gëmloo golo yi nga xam ne xamuñ li xew ci suuf ku ci négocier négocier ku ci sant Macky Sall sant ci faw bu lay jox jox la ci suuf mais bu la joxee nga gërëm ko am nga ci droit yàllaa ko santaane donte la xam nga ne li mu lay jox moomu ko ndax bi mu tax toogagut ci président gi joxu la dara waaye nga gërëm ko yaa moom ci nekk ci sama sañaare bi la ma fekk nga xaar ba ñëpp ñëw nga gërëm ko ci kanam mbooloo mi moo la ko sant Macky Sall li mu sant sëriñ si la ñuy def wallahi lazim ku ci lekk benn franc CFA di nga ko sant ci kanam nit ñi far force mënu leen koo bañ parce que nanguwu leen a liggéey soxlaat leen addiyee taalibe yi addiyee état ngeen soxla sept huit milliards yi muy jël moom lañ leen di jox ngeen di lekk yéen seen njaboot di ngeen taxaw ci kanam événement yi jullit ñëpp teew ngeen bañ a sant yàlla du ngeen sant yonent bi du ngeen sant mbokki taalibe yi nga xam ne yéen a leen woo ci diine jiitu leen ci di leen ci defal lu baax da leen bàtt sant Macky mi nga xam ne lu bon rek lay def lu araam rek lay def lu bon rek lay def ba ren moo leen di leyal daaw ba ren lu ngeen fi am moo leen moo tax sant par force ah oui ci suuf lañ leen di fekk ci néeg yi guddi jox leen xaalis waaye ne leen nag mbooloo ngeen may sant ngeen di tarara ne mel ni kuy jàngal Quran par force par force parce que nangu wu leen liggéey nangu wu leen a jaamu yàlla Macky Sall la ñuy jaamu jaamootuñ yàlla fii lañ toog gis ay imaam ñu naan premier ministre sax boo bëggoon sax ñu ñàkk a julli ñu foogoon ñoo ñoo ko ndeke ñeneen ñi noonu fu ngeen woowee taalibe yi woote ngir yonent woote ngir yàlla sant woote moo leen li ngeen bëgg ku ci yaakaar toog téye sa pour ñaan yàlla mu yónnee la mala xaalis seytaane mu loolu mooy ñaan bu nangu nax nga sa bopp la waaje waxoon sëriñu mbàkke mbàkke ba dee mën a tëdd looloy looloy looloy barke dee mën a nelaw nañ continuer ci rythme boobu rek mais wone wuulaa toog ci génn kër juddoo ci diine yaroo ci diine diine wax lim wax nga jàng ko taalibe yi jàng ko ngay tararale leneen suba ngoon ku ñëw rek li neex gouvernement bi ngay wax liñ fi def sa yoon nekku ci te yow xam bi ñuy fal Macky Sall faluñ ko pour yow pour xeet bi yëpp la lool loolu wóor na la sëriñ yëpp ko xam muy mbugal yëpp di la neexal yow kenn nga ne Thiel yaag Macky Sall mi doon wax naan soldats yi Sénégal dañ leen jox dessert mu di ko xugli ko yéen yem kon soldats yi jóge woon Gabon yi jóge woon Niger yi jóge woon feneen ak Burkina Faso ñooñu li ñu leen ñàkk jox dessert na naqariwu la sëriñ bi yow ni ñu rey ci la dekkee yow sa ceeb ci sa kaw sa ñaar da jikkoy cuuj ku ne mën na ko boo faree sàccan wan ginnaaw ñi nga nekkoon dem lekk ba mu jeex nga ñëwaat tey sant ka gërëm boo dee nii di sori woog bàyyi may waaye jóg leen yéen bindkat yi bind leen mbooleem ñooñu képp koo xamante ne li ngay def arrangé wut peuple bi nañ la boole ci benn liste war la ne dangaa tenté ci sécurité wala jàmmi population sénégalais dugal nga ci sa loxo yaa ngi bokk ci association bi leen di bund xatal bi leen di teree dund bi xatal seen dund gi bi rey seen doom yi bi tëj nit ñi kaso te defuñ dara bi texe Macky Sall ak gouvernement continuer fi bu jógee jox fi premier ministre yéen ñooñu yéen ay ass yéen ay yéen ay benn société yéen ay benn société terroriste bu terroriser peuple Sénégal bi nañu bind loolu nañ ko bind def ko benn feuille xaadim ko téye ko gone yëpp jot ci mboolem tur fukki at ak ñaar yi ku fi ma journaliste Madiambal Diagne ñoom ñoom nañ bokk ci liste boobu que ñoom ñoo terroriser population senegal ñoom ñoo tante pour xatal dundu Sénégalais dix huit millions yéen ñu matul juróomi téeméeri nit kenn ku nekk boor ba mu nekk Moussa Fall consort Bokar Yagd et cetera ñoom ñëpp ñoo tenté xatal dundu Sénégalais Adji Sarr ak ña ca àndoon avocat yi El Hadj Diouf bu kenn des nañ leen bindal liste teg wane nit ñi ñëpp dañoo tenté pour xatal. dundiinu doomu aadama yi rey yenn sénégalais yi tëj kaso na ñi di ci lu duul dëgg du yoon di jaay doole bàyyi ay sart Macky Sall wóor na ko ne bu jaaree ci sart du jëlaat réew moo tax mu teg fa lay sart doxee du ko neex kilifa yi ku ne mu jox la alal bi ñu lay jox xale biñ ñu la bi ñuy kilifa bu ciy sant lañ ko jox bañ koy jox population bi yëguñ kon Macky Sall guddeeg bëccëg ay malet lay joxe mais mais c'est pas sérieux ça fan lañ ne ban planète lañ nekk ñun te ngeen a tas lii delloo tubaab bi mu yoraat ñu wala ngeen dellu ci Lat Joor ak Alburi nga xam ne buur ak ñi ko war moom loolu leen neex def loi yooyu fi nekkoon bu leen ñu nax pat bu set guddeeg bëccëg démocratie réew mi am nay loi ci li leen neex lu leen arrangé lu leen dérangé loolu la loi bi génn waaye bu dul loolu seen sago ngeen di demee bind leen xaatim gii li muy def nit ñi nii journaliste yi bind yàkkamti na gaa yi bind ngaddum fooy def ci mbooleem turu fu at ak ñaar yi képp koo xam ne li ngay def dafa lor benn ganaar ci dëkk bi ñu boole la ci si wane ne la yow terroriste nga ci association malfaiteur nga bokk da ngay tànk ci sûreté des populations sénégalais yaag crime bu jógee bitim réew ñëw di ñu coup taa wala ngay coup de peuple loolu yéen a yem képp sëriñ si coup de peuple ci lañ nekk taalib yëpp topp leen ngir diine ngeen nangu xaalisu état bi ñëw di sant yi muy def taalibe pour lan xanaa kon du ngeen leen ñëw woo leen Macky moom kenn ak premier ministre ngeen wax moom ngeen koox ak ñoom ci guddi ni ñu leen joxee maladie ci guddi fay lamp yi wax leen ak ñoom noonu ngeen fay lamp yi bu leen rey nit ñi c'est ça problème ñun dañoo sonn ci sëriñ buy gërëm état boo xam ne ma ngi rey population bi yéen a ngi mel ni xamu leen li xew te yéen a ko gën a xam nit ñi parce que maladie ñu leen jox dañ leen ko jox ngir kan ngeen changé ko ci kanam taalibe yi gëmloo nit ñi ne ñëw fekk si leen ci seen bis kii ngeen di gërëm li ngeen koy gërëmee du loolu da ngeen koy gërëmee seen intérêt personnel la te leen def ci toog doone a leen cee wax malet bi ñaar lay wecci gërëm sëriñ bi ak gërëm taalibe bi euh, Macky Sall gouvernement bi ak ne patt ci lu bon li muy def yéen dëkk dëgg dañ koy jand ci yéen danañu yàlla musal ci nit kuy la muy lekk noppi ci dëgg tax mu jot yen a gën a xam ne Macky Sall li mu leen di jox amu ci kenn koo tax ne ay mustaasam moo tax mu jox ko wala sant yu mu nekk non bëgg ngeen gërëm ko ngeen nëbbale ko lu bon li muy ngeen sant ko ci kanam taalibe yi ngeen d'accord ci mboolem lu leen mën wax ci lool ngeen nek bu dé amadou ba ngeen né amadou ba bu dé ali nguy njaay ngeen ne ali nguy yéen amu choix amul benn sëriñ bu fi am choix que ne ki la passé né mu jité réew Macky Sall ngeen doon déglu politiciens yi ànd ak Macky Sall du Macky amee dañoo bañ mais sëriñ si mu né amadou ba ngeen né amadou ba yeen bu dé woon maram Faye Sall ngeen nangu waa ah. bu dé won amadou Sall ngeen né ciel kenn ci yeen du ko wéddi ndax li taxone mu war ko wéddi jaral lañ ko ci mom bu yag muy dignité assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh xam nga kan la génn ci sénégal yi yàlla mën na laa may nga ñàkk yàlla mën na laa jot bañ a jox xel yàlla mën na laa xañ yaram mën na laa xañ lu bari waaye dafa am loo xam ne jàmm nekk la koy jox nga wàcc ko nag ci lay ci la lay muy fulla gis nga nit bu la faalewul bul ko faale gis nga sëriñ si ba ngeen toogee 2021 ba tay ngeen nan serigne ci serinci ci serinci ci serinci. ci serigne ci serigne ci serigne ci faale wuñ len ngeen nan yeguñu boba lañu ngeen wara xamne ben at 365 jours kenn ku ci nek ben bes nga am titre gu bari gi yeb man moom man na titre sama metti sama manisari gi man na ko titre di ndax nek nak mom moy ci di ci suturloo Senegal. ba xey gen Senegal ñew France di suturlo buma démé Espagne di suturlo buma démé Allemagne di suturlo buma démé fenen diko suturlo di mais serigne ci benn bes lañu am buñu suturlo suturloo buñ paree lépp kaaje kaaje la muy lan bu gam atmi ba atmi jeex gam lañuy woté ku ci am tiitar ku ci xogaliku ku ci nganda ngandalu ku ci jaay feug dënn keur gu rafet gam mouride ga magal ñom ñep appel waaw soo ma dimbooyu 365 jours 364 jours 355e jour ba waaye waaye ma dimbooyu la yena ne ay julit ngeen da ngeen di tok wan fukki wer ak ben fukki be ak ñaarel ba ngeen wor ak ceeb nu mu nexe ni ngeen kóllëre gi ngeen am ak mom ni mu yàggi ngeen ne wor ngeen man bu ngeen mané wor ngeen nak dama nan fa ngeen di fen parce que bu fekkee sëriñ si lu metti liñ leen teg liñ fi rey ci ay xare naqare yi fi juuxu yépp ngeen toog mun taxaa woote ngeen daw mu leer leen ne suufu maamam gi muy woote baatin ku dem di ñaani ji tamit ndox xéewal la war a nekk ci ñëpp Europe gi ma ne de ndox xéewal la fi ndax huit mois lay taw huit mois lay jararari huit day jararari te saay buy ñëw du leen tere liggéey kër mun taxaa ba ngeen demee quelques jours la indi xéewal yàlla indi xéewal xéewal ga doon mbugal ci ñoom baatinam lu mu rëy rëy rëy rëy rëy kër maamam nga taana mun taxaa loo mënal sa maam baatin gi exair gu mag gi gannaaw malaaka ñëwul yabu la yenante yabu la yow ndoxu yàlla rek yeb na la ba taawal sa kër maam loo ca mën question la de question la de bu leen ko jàppee lu ñaaw de am xalaat la laaj rek xalaat xalaat la laaj 364 jours 65e ba ñew ngeen geddal mbey ngeen ne fa ngeen jëm wuti ji yalla <laughs> yalla ne len pour ne ngeen dekk buy toj ñap la ne ngeen soman fa la caga ji daje nga paro fa la caga ji daje sali fa la caga ji daje mbour ay katu jeun lañ jowal ay kat lañ kaolax ay jakarta lañ yor waye keur aladji malik gi jam yi daw ci 365 jours yi duma dem ci ben hôpital waye hôpital bañu tuddé aladji malik fukki lire ak juroom ñaar la fay jël ci ben bes ana mbay si batin gi la sax maam bàyyil ci man lu dul yara tablette rek di tag ay deyre yu la jox deyre itali bek ñëpp lay contrôler nak damay contrôler <coughs> damay contrôler politique bi ciow li ciow li mi ngi ci kër serigne si ku xamul limay wax demal nga liiri archive yi nga xam lu len fi bàyyi ki neena ma waxo fi dara <laughs> waye dara la fi ba bo fi toge ta gis ne waxuma fi dara yaangi ci lu dul dara yow ne bindo fi dara ay la de damay gam damay de dama len di laaj ñass lu bay bañ bañ bañ bañ bañ teranga jim fi bàyyi ba nga fiy dund sa jabar yi nga tak yenn dom yi ñu ngi xass yenen dom yi ndax nenañ benen jabar ji ab aw sala développel sa kër kilifa diine nga danga jege lol lol waru la té question réponse de l'askan yalla laay laaj askan une eh, réponse eh, très important de askan la andi wax len damay laaj problème lay bañ li ma laaj question la wala déet tontu len ma bala may jall ci bir keur yi ndax bari na ci ño xamne ne bu fekke ne keuru dine yi ndonante la xale yi jur ci ginaaw yi sey tay appel yi war na tas ci rew mi ndax dekk payang fay di tëdd ak ay jeeg yo xamne takku kon ku ca am dom nono len dox xalif kilifteef ndono dong do am njàng kilifteef ndono la bokku ci gañaguñ la jure kon bu jure juré tay wuyu ji warna mëna mën tas ci bir Sénégal fep wax leen dugaar am ngeen fa dom taset am ngeen fa ay dom France gi am ngeen fa ay dom tan dana rek motax ñu len di wuyu ci damay laaj ndax ñi ngeen ëmbal est ce que ñoom seen dëkk yi am nañ droit woote fa ndax ci gaño lañ bokk tëyëxa leen jur damay gàmmu de damay laaj question lay laaj maa ngi leen di yër yéen ñëpp dama leen di laaj tantu leen ma tantu leen ma ku fi toog te gaño joxula ko wax leen ma kana kon gone ñu ëmbal ci ginnaaw yi sëy gone gii di muhammed Niass génn réew mi ndax gàcce moom day baayam tey mbaxane bi bu ko dëngalee ba toog ci seesu buur xëcc président ba mu ñëw di ko tagg di laaji malet jox nañ maag ñu ma njura ko ko jox ndax kamu jur mérité wu ko kon yéen làppato yi toppi leen bu dee da ngeen di topp nar ngeen a topp ay gaño yu mën a tëyëx toppi leen ay gàmmu la de <laughs> gàmmu la de iskay rek laa fi bëgg a dégg iskay wax leen question damay laaj damay laaj rek ku ngeen fi topp lu dul ndono kana ndono nak gañoo koy joxe ndono gañoo koy joxe <laughs> damay laaj ku ñu jur nga wara don kon ñi ñu jur ci ginnaaw yi sëy seen yaay ci taw ñu xuus ci taw bi ci kër gi ñu bu max leen ci kawlal dugal dugalaat wala dugal benn doom juddu fa ndax kooku mérité na woote damay laaj de question laay laaj de du lu sama baay def de ay bàyyi jàmbur ko fi def billaahi bu ko fi sama baay defoon xam <laughs> doxaani na de waaye dama ko topp ba xam fa muy doxaani kon bàyyiwuma bàyyi kenn wax leen damay topp rek si <laughs> dara ma ko leen torox xaw ma ndax di nga toroxam déet waaye ñu ngi leen di topp ñu ngi ciy ami malet kina na ma yow nga waaye ba tay limay wax xam nga ne deug la ci rew mi la xewé wax len deug moy ku rew ubbi naa ligne bi wax lay bañ nak développement la bëgg ngeen jang ko gone yi gam ku ne mën ko war def nak li tax ma wara gam dama liggéey ami malet xaaruma ñu dima andil malet dima ma conditionné ni may nañ gis nga alalu àdduna bi yëpp boo ko dajalee woon quatre vingt pour cent yi ñeenti ñeenti compagnie yi ñoo ko moom boo boolee Google ak Apple ak Facebook ak Amazon bu alalu àdduna doon mille ñoom ñoo moom huit cent yi léegi dafa am nit ñoo xamante ne dañoo jóg di jéem a xeex loolu pour wàññi ndóol gi ci àdduna bi parce que équitabilité bi amit ma maanaam dafa disproportionnel ba mu ëpp Omar sama doom mu ngi liggéeyee Amazon ki ko moom moo ëpp xaalis boo boole woon Maroc Mauritanie ak Sénégal ak mari boo leen boole woon ci seen budget moom moo leen ëpp xaalis benn nit boobu léegi amay ñu ñoo xamante dañoo jog pour jëm a xeex loolu pour équitabilité boobu wàññiku

nga xam lañu wax nee na ay nit ñooy ñëw volontaire góoral ko ko te kenn du leen fay ñu góobal ko ko foofal ko ko bayal ko ko ba pare état bi subventionné ko ay semence de qualité ñu ñëw jiyal ko ko góobal ko ko bàccal ko ko ba pare bu ñuy jënd gerte gi ñoom lañuy privilégié ñu jaayee leen ay milliards yu dul jeex jox leen ko de lu ñu sax fay impôt nit ñi liggéey ci tool bi yépp amu ci kenn ku ñuy fay ñaari dërëm bu ñu paree mu tiflu leen ñu dem te attanuñu sax lekk ci gerte gi nga xamante ni moom lañuy bay donc ñii jël suñu xaalis di ko dagg leen ko jox pertement la parce que ñoom ñoo choisir bëgg ndóol ñoom ñoo ñoom ñoo choisir ndóol te yemuñu si dañuy demaat malgré seen maigre ressources yi ñu am te amuñu lu ñu lekk dañuy demaat di ko rangaat ko jox xaalis xam nga loolu boo ko déggee da xam ne murit la ñu wax ñun la ñu wax donc ñii bu ñu ndóolee seen normal que ñu ndóol équitabilité boobu ñuy xeex ñoom demandé wuñ ko parce que ñoom ñoo bëgg ndóol gis nga. ñoom ñoo nangoo nekk ay jaam nit nag bu jëlee choix ne lii laa bëgg a doon da nga koy bàyyi mu doon ko xam nga yéen loolu du ngeen ko yëg léegi yéen tubaab yi ñëw di leen xeexal loolu pour ñu dagg au moins maanaam ah, ki moom Facebook Mark Zuckerberg bu ko neexoon bu subaa Touba ah yéen ñi fay yeewoo ñëpp ku ci nekk mu jox la million. te du ko wàññi dara mais dañ ni nii ndol ñu ñom ñoo choisir pour pour ndol ñom ñoo bëgg ndol kon nañ leen bay ak li ñu bëgg ñom ñoo bëgg nek ay jaam nañ leen bay ak li ñu bëgg nek manam choix la bo xamanteni bi bile ñom ñoo ko tanal sa bop mu tax ñi bo ngi koy def wala ngeen koy wax du ngeen xam li ngeen di xawma xaw tu ma comprendre pas quoi c'est boo leen demul gëstu bu nit ñiy wax gësamu rek ngeen di def. ab dëkk boo ko bëggee sellal nit ñi ngay sellal ba noppi nit ki boo ko bëggee sellal da koy jox ak ak yelleefam ba pare loolu mooy dëkk bu sell ku yow am loo lekk am loo naan am foo mën a xëy dem dëkk fu set loolu mooy sellal sëriñ bi soxlawul ay dëkk. li mu doon liggéey di ko defar pour taalibe yi la doomu aadama yi la bëgg a dimbali mais du ay dëkk yu sell la mooy dëkk bu sell dëkk bu inondé salde loo dëkk bu sell nit ñoo xamante ne bi rek doo xam yan genre nit la moo tax du ngeen fa gis sax ay gan yu bari parce que amuñu luñ fay gis ils n'ont rien à voir foo toll Touba tubaa tubaa boo ko déggee ci àdduna bi da ngay foyee lu nekk la mais boo ñëwee ba agsi ba gis nit ñi da xàcc dëkk bu sell mooy da fexe ba nit ñi sell amaay dëkkuwaay yu sell Touba même plan d'urbanisme sax mënoon nañ ko defar ba nga xamante bi léegi kër yi sax ñooy nuroo ay plan spécial yoo xamante bi la dañ koy def mu mu nekk ay plan Touba yooyu sax moo naa nekk te li ngeen xamul mooy ba fa néegu ñaxu seng yi nekkoon la Tuuba amoon mbóot suuf su nooy si ñaan lay ci biir kër sëriñ ci ak ndaaye nga daan fet ca ëtt ba da nga daan sentir baat yi modeste boobu moo taxoon ñu daan mu daan saf yàlla mais léegi poto poto yeeg salta yi boo duggee marché occas doo sax da ngay appétit dof yoo xamante ne bi dañoo fàqe ci ay dëkk yu. ubbil naa leen ligne bi ubbil leen ligne ku dugg rek def deux minutes imam istribiar imam imam imam nee na ma lan imam lu mu wax. calling xarama woo oh calling. calling calling calling. calling calling calling salaam aleykum wa borom gàmmu gi ñu ngi lay jaar ah tay grand bi li nga gam neex na machallah allah ñu ngi lay jaar léegi moom yoo leen ko wara jox ñu ngi lay jaar waaw addiye yi moom gaay yo leen ko wara jox parce que li nga wax fi dara du ko tin am nga dekk moom bokay koy wax moom yaa lapp làppate yo xam ni dañuy tok dañuy fiisu yàlla ñoo dégg lu waay ji bëgg a wax lu waay wax sànq laay wax rek ñoom ñoo bëgg a bon rek ñoom ñoo bëgg lu baax gis nga nit boo nit da ngay fonk say waajur gis nga sa waajur mun la may amul benn sëriñ bu la koy may sama sëriñ dañu ko doon wax nee na ku si liggéey ba ba am xaalis romb say waajur joxoo ko yow jox ma ko su ma sax sonn loolu lañ doon wax daal na ko yàlla yërëm mais sëriñ su ma gis sax léegi-léegi nii billaay wallaay ku leen yaakaar da nga torop max volume ki yalla bëgguñu ku xool seen race ñoo xam bëgguñ Sénégal ñu sen bop lañ bëgg seen bopp lañ bëgg billahi wallahi sen bop lañ fi nekkal ñoom seeni doom bu fi diggé sen doom ñew jël sen alal léegi yow nga romb sa papa romb sa yaay di defal baye jamm su paré mo après doom la koy defal yow kon di trop nit yéen kañ ngeen yew kañ ngeen yew ci àdduna yeen sénégalais billahi wallahi man damay russe damay damay tok fi damay rus dama nan senegal du rew dara rew mu trox moy senegal da ngeen trox xam nga trox ñak du trox mais am ba paré yalla may lepp pour nga avancer yow avancer wo lool moy trox serigne ngeen yaakar nak ci bu suba ngon da ngeen trox bu len sax son di ji encore une fois ma ngi remercier ñep waaw kon nel gam gi nak gam gi neexna trop sensibilisation yi neexna trop ma allah dama yalla defal jamm merci beaucoup <coughs> bu ngeen yew won duñu bo xante bu ngeen yeewoon kenn duñu na asalaamaaleykum. ah ji. waaw ñu ngi jaar. town bi town bi xanaa xamoo yàlla dafa maanu ci Sénégal. réew mi réew mi yàlla sax da cee da cee maanu mënul dara yàlla bu yebaloon ay malaaka pour ñu defar Sénégal sax malaaka yi dinañ dem ne ko non xoolal ñu beneen dëkk bu ñu dem ndax dëkk bii saa waay ñii pare wu ñoo pare wu ñoo sigi quoi. 35 ressources keroog maa ngi dégg waa ji di ko wax Samba 35 ressources jiji trente cinq ressources ci réewum Sénégal hôpital bu baax partout au Sénégal hôpital bu baax amul un million de jeunes yuy talal loxo di fayee ko amul Sénégal du dara lu yomb ci réew mi dara du feebar faju la du njàng mu am jariñ la du napp la du sàmm la du mbay la askan bi daal dañoo mel ni comme taal yow da nga ne ci réew mi ni daal mel ni benn genre garab gu taxaw sax garab sax dinañ ko arrosé garab sax xanaa boo ko jëmbatee di nga arrosé mais ay nit nekk ci réew amul lenn li ñuy bës bénéficié wu seen réew ay ñoo xawante ne kenn xamul fu ñu jógee cinq ans milliardaire dix ans multimilliardaire cinq ans millionnaire sept ans multimillionnaire après dañuy gëmloo ne réew mi amul dara ko dañuy gëmloo ne réew mi amul dara bu ñëwaatee nañu réew mi am na pétrole réew mi am na or réew mi am na phosphate am na zircon am na nangam am na nangam ah mais depuis jamonoy Senghor ba léegi yow ñi liñ yàq ci alalu Sénégal bi ci ay milliards mais dan la defaroon Sénégal politiciens yi fi jaar kese rek politiciens yi fi jaar rek liñ liñ ci ay milliards ci réewum Sénégal mais lan ak lan la defar ci réewum Sénégal lan lan lan ak lan réew mi ñi ko jiite bëgguñ ko seen bopp seen jabar seen doom lii Sénégal yi dañuy nekk di toog di xool ci lii ba kañ lii nii ba kañ askan bii nii jot na nit ñi dem toog seen ruuxu xool li ñuy def ak li ñuy bàyyi na nit ñi dem toog xool xalaat seen xalaat seen seen àdduna bii xalaat seen ëllëg ñu takk leen sareet boo xamante ne nanguwuñ koo tekki ci ay mbir yoo xamante ne amul na benn njëriñ sa àdduna réew mi ne am li fi am nii mais nit ñi mais yow li dem dem sa bot li ngay wax yow si àdduna doo ko xam. jaajëf mais lii lii ba kañ. jaajëf jaajëf jaajëf ku dugg rek dóoral deux minutes may sa moroom ku dugg rek dooral deux minutes. gamu gi day continuer ba ci kanam parce que amna yuma wara indi allo domi la laa lim domi wa doom alaykum wa alaykum salam ma ngi ci live bi wala dafa jeex. non yaa ngi ci bir wa ñu lay bëggee di la ziar waji wax sank lay bëggee di dëggal lim wax rek euh ki wa ki doon wax naan Sénégal rek ngay gis nit am 150 hectares am ñu volonté wu ñew pour bayal koko wo waji waajeew ji limi analyser ci dëkk bi do jiji yeen dañ leen di ñaanal la la wax dundu ah ak di def li saa su nekk rek parce que dama ne la yéen ñun yéen lañu am parce que télé yeeg yenn réseau doomu xaraam yeeg ñëpp instant bi ñun réseau yi lañu am pour di ci dégg di ci jëlee di ci jànge ah yéen nu ngeen ko defee rek yéen fexe leen di fi nekk rek yéen yow boo fi nekkul rek na ak na doon nekk xam nga ngeen di dolli nit ñi ñuy xam parce que gars yi xam nañ de mais amuñu ku leen dolli xam-xam kuy wax ci technique Sénégal li fa am foofu rek la am Sénégal kese la am Sénégal kese kese kese kese ma liggéey la gratuitement mais dëkk boobu nan lay demee et puis <coughs> suñu ci moom yàlla def na yéen yàlla may na la ngeen def ci benn liggéey bu exceptionnel boo xam ne sa waay ñun ñu ngi fi heure man moom boo gisee sama croix bi croix bi man bañ jàppee croix bi laa génne diine bu Sénégal man Sénégal moom man damaa jàpp ne diine nekk man def laa jàpp man moom pays France laay jullee wala yooyu mais Sénégal mu ko demee man daf may wàcc que nit mënu fa jaamu yàlla yàlla fay la ci sa jaamu yàlla foofu yàlla day am sa yërmande dugal la àjjana wala nga may benn xaj lekk wala muus wala yooyu mu dugal a àjjana pour loolu mais pour jaamu yàlla bu lew ci Sénégal loolu c'est impossible c'est impossible mënatul nekk yéen nag yàlla na leen yàlla fay seen taxawaay bu leen dara découragé ñun ñu ngi seen ginnaaw di leen déglu di leen bëggee di leen ziar di leen ñaanal kattan ak wér. jaajëf yàlla nañu yàlla may ndam ci xeex bu kenn découragé jaa ngeen jëf. jaajëf découragé amul ne ñii bu ñu leen daanoon suñuy sët daan leen barke Rasulullah man buma len leen daanul parce que jëf ji ñaaw ji ngeen jëf sama bay ta siis gi ngeen siis mbon gi nek ci yeen du ngeen nemmeeku ñi len jox li ngeen doon damay revanche ak yeen ba mu saf sap bu ngeen reculer wol duma ma allo allo assalamu alaykum wa rahmatullah ji ji maa ziar bu baax ñu lay ziar pay pay li nga li nga daanale rek fof lay fof lay commencé pay siis lañ def siis ak soxor ak iñaanee iñaanee sen ndoro iña iñaane iñaanee jeunesse bi rek moo tax ñiy def li ñuy def nii yëpp mais ñoom ñëpp dinañ kat sen ndey maay ñas ku kat sa ndey nga yow yow doomaraam dëgg nga dàggasante rek ngay def mel ni jigéen imbécile maay ñas imbécile bu bon nga yow ram mbay si ngay wengalu noonu mel ni lu may bañ wax ah yéen du ngeen ay nit du ngeen ay nit da ngeen a soxor da ngeen a soxor ci jeunesse bi lan la leen jeunesse bi man ñii lan la leen jeunesse bi def rek laa bëgg xam jiji jeunesse bi defuñu leen dara yéen saa yu ngeen soxlaa jeunesse bi ah su ngeen soxlaa ko leen bayal seen tool seen tool jeunesse bi ñëw ñoo leen di nekk seen suufu tànt yi di daj lu nekk Macky Sall jël jeunesse bi di ray ñii di gàttaay fu nekk ñu dem fa di tambaambalu ci àll bi di dugg ci ay gaal fu nekk ñu dem fa ndax sonn yéen waxoo leen ci loolu Macky Sall jël ay gor ay jàngalekat ay professeur ah ay hauts fonctionnaires ay cadres ci administration Sénégal Macky Sall jël leen ñoom ñëpp dugal leen ci biir kaso bi yéen ngeen ni teg ngeen ni da ngeen wax ci loolu Macky Sall mii yéen guddi yenent bi ngeen wax Macky Sall mii moo dem fañay saaga yenent bi ba ñu rey leen Macky dem ne liberté d'expression ñoo ci au nom de la liberté d'expression ñu lay jappalé manam ñu doon saga yenent bi yeen ngeen ni guddi yenent bi ngeen di fété Macky Sall domeram bi ñew fofu nonu ah au lieu ngeen waxo ngeen wax deug ak limuy tek Ousmane Sonko yépp ngeen taxaw di tag da nga bax ay li yépp ya ko fi def motax yeen ñepp seen jikko yu bon yi dina feeñ ci muju jamono lañ nekk yeen ñepp li ngeen fi def lepp lepp ngeen di def ci souf rek dina feeñ parce que ay doomaraam ngeen yeen si politique religieuse et griotique qui fait que de plus en plus le peuple tourne le dos au marabout parce qu'il fait faire au marabout des choses qui ne sont pas dignes, qui ne sont pas conformes aux enseignements de Saint Touba et de la Jumadix. Et qu'aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. na leer de may leen ma tuuti ñu ñagu gaay dañuy ñagu dañuy ñagu coow li bañ bëgguma paa toog naan booy yi dañu réew dama bëgg ñu xam fi ñuy waxe fan la xam lu tax ñu song leen ak ñoom luñ ci def dañuy ñagu laaj na nag su ma leen bàccee ba mu yàgg ñu nar a gësamu ma indil leen témoignage témoignage laa leen di indil témoignage témoignage laa leen di indil témoignage laa leen di indil am ndax imaam la mën naa bokk ci kilifa diine yi imaam la saaga yi xale yi saaga est-ce que xale yi xamadee tax ñuy saaga wala dañu leen matut ay kilifa problème boobu laa am la est-ce que dañoo xamadi wala ñun dañoo matatul kilifa kilifa mooy kii régler say problème di tontu say question est-ce que ñu ngi tontu question xale yi ah, ah! ah ñu continuer ñu continuer ñu continuer ñu continuer ñu continuer dinañu dégg de ñu continuer ñu continuer comme ñoom xaala laaxu duñ ko dégg xaala rasol duñ ko dégg faalewuñ yàlla faalewuñ yonent nañ dem ak ñoom ci xaala xaala iblis rek xaala iblis rek xaala iblis dinañ dégg dinañ dégg de salaamaaleykum allo salaamaaleykum waaleykum salaam diji maa ngi lay nuyu di la ziar ñu ngi lay jaar waaw daane rek fu mu daane rek noonu la ma ne ko paa fu mu daane loolu waaye ba bu génnale kooku ku téegal ndayam la waaw parce que bu ñu demee ba tourné doo euh, sëriñ si parce que sëriñ si sa bopp ñoom ñooy duulkat ñoom ñooy fenkat parce que mënu ma gis nga Sénégal ba foog ñu yeewu fi mu toll nii ndaxte mënu ma sa ndey sa baay yaa ngi dégg moom ñu la am ba juróom-ñeenti weer moom sëriñ bi gënal la sa ndey sa baay man question boobu laay laajte yow boo demee sëriñ mu ñaanal la sax yow soxlawul sa ñaanu waajur bu sëriñ bu la sëriñ bu rek dèjà mu ngi man yow yàlla moo la ñaanal ah sëriñ ba ngay dem tax toog mu ngay jël ay tànkam di ko fompat di ko fóono kenn xamul te lool pour taal sa ndey sa baay si la ñoom ñoo si gën a jekk sa ndey sa baay gën a jekk ñu nag danoo yeewu fi mu toll nii xaw ma nag ku yeewul ku ne ku yaakaar ne sëriñ si toog ni ñoom ay sëriñ lañu ñi ñu téegal seen ndey lañu parce que ñu nekkaluñ fi yàlla nekkaluñ fi yonente bi amuñu benn baatin suñu amul baatin kon bu nu feebaree du ñu génn naan ñoo ngi faj bitim réew kon du ñu génn di faj la moo tax mënuñu faj seen boppa la moo tax mënuñu faj seen boppa bu Macky Sall la ñëwee bu amee seen événement du tëju si biir néeg waaye la ngeen di wax ñun la ëpp waaye ëmpul yàlla yàlla yàlla gis leen mbaax ba yéen ñu téegal seen ne si ma xam parce que amul leen benn njëriñ fees askan bi moo fi te Macky Sall laa ngi rey di si dërëm wax daal ngeen si waxoon ay doomu xaar rek ngeen jërëjëf di gi jaajëf ayca ayca ayca ayca ku dugg jël barkeelu ku dugg jëlal ñaar ba ci ñetti minutes nga jox sa morom mu barkeelu ayca gàmmu gi gàmmu gi booy na nga def ñu ngi lay ziar waaye loolu sant euh, góor googu nga xam ne moo génn léegi ta nga teg vidéo walaay am na ñoo xam ne comprendre na dama ni guddi yi ñu toll ku yeewu dootoo yeewu ndax man dama yaakaar ni lu day ne gouvernement bu dikkee ci yoon manche bi moomu pas moustache bu dikkee war nañu wax xale yi ñu rey professeurs yi ñu tëj docteurs yi ñuy rey di leen di leen di leen di leen di ci seen kaw di dal di di jël ay ay ay ay oto di dal ci seen kaw li ñuy teg askan bi ci loolu la ñu wax waaye wax nu ci loolu muy wax cinquième président wax cinquième nangam ñii na leen leer ni ñoom sëriñ soos ñun ñëpp nag muy xalifa yii fi di doxale ni leen neexe na leen leer ni seen noos jeex na ci deux mille vingt trois bi deux mille vingt quatre dina xam ni lépp dëkk la ndax nit ñi abandonné nan leen ndax ku la mënu la lijjantil sa kaso mënu la lijjantil sa réew mënu laa lijjantil sa àjjana na sénégalais yi yow ah ñi nu tëj seen doom yi ñu nu seen doom yi ñi nga xam ne dañu am ay problème na sénégalais yëpp jóg taxaw wan leen gannaaw te jël seen loxo dikka yàlla suñu borom ndax yàlla rek moo yor lépp ndax ñoom duñu tus duñu dara duñu dara duñu tus ndax ñoom dañu éñani eh, jeunesse bi te yal na leen ak jeunesse bi daal te ñoo xam na ni pare na musique fi jërëjëf jërëjëf yaay boy kooku sama yaay bu bëggee dix minutes sax da koy am yaay ji yërëm doom la de li ñuy wax yépp mu ngi koy yëg fi ñu jógee mu jóg asalaamaaleykum salaamaaleykum eh, kuy dugg na nga fay sa live bi amuñu jotu déglu borom béy bi ku ñu ngentee béy bi di déglu keneen salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. Euh, maa ngi ci live bi wala jeex na. yaa ngi ci biir live bi. waaw ñu ngi lay ziar bu baax yow yéen moom wax dëgg yàlla amuñu seen fay ñun ñun askan wi laa wax surtout ñi nga xam ne nii ñi ngi Sénégal ñi génn nekk ñu Sénégal parce que tax ngeen. sama classe gi nga xam ne ni nii mosuñu gëm sëriñ gën nga leen yokk courage may leen fit ba tax lépp luñ daan werante ci affaire sëriñ tey jii dëggal ngeen ko vidéo boo mës a dugal lu ci ëpp damay jël di partagé sa live fu ma toll damay partagé parce que la la ma doon wax da ngeen a ñëw gën koo dëggal kon sénégalais yi nañ yeewu te xam ne sëriñ si ay naafeq lañ ay seytaane lañ man chaque jour ma ne leen gis nga fii ku fi sa yaay di dund sa baay di dund amoo ngërëmam bu sa sëriñ gërëmee na la leer ne boo dee musiba dugg na la parce que sëriñ soo xam ne nii doo toog si seen kanam mukk bañ na la yàlla nee na yonent bi nee na sama maam nee na ak nee na kese lañ fi nekkee di seetaan Macky Sall muy rey xale yi lii du dëgg du yoon ñoom nag ku nanguwute xëppi see bët xool leen bañ dugal la ci gilaawaal yow yaa yaa des kooku ñuy wax nag euh, nekk ci sama dëkk boobu ñuy wax euh, Kaolack muy maay ñax nga xam ne tuxkatu yàmba tuxkatu boon fu yàmba nekk boo ko ko laajee mën na la ko wax moom ak Seexu Njaay Bay Faal lii dëkk Kaolack xam nañ ko ñun Kaolack lañ dëkk léegi lañ génn dong waaye ñun Kaolack xam jaakati yàmba yëpp xam nañ leen maay ñax nag la mu doon def bañ a ramaas ko na leen ko wax maa ngi jégalu baax nag jaajëf <coughs> ndaw si nee liñ daan wax da koo dëggal déedéet sëriñ si liñ def moo ko dëggal liñ def moo ko dëggal rey yi fi Macky Sall rey ñu ànd ak moom di ko tagg ne ko tour de baax na président danga ngay yi di tëj dégg na géwélu doomu xaram bi jaaykatu yàpp bi naan buñ ko yóbboo CP yi wàcc na ah, xaw ma ah, toro torofe la ci moom waaw xaadim sàmm xaadim sàmm soo amee jot ñëwal France nga jël si sa trophée du CP yi ndam la ñëwal France nga jël si sa trophée mun Muntaxa bu feebaree France lay ñëw. maa ngi feebar France lay ñëw. yow boo feebaree ñëwal France nga jëlaale trophée yóbbaale. doomeram ñàkk jom du rayee ci réew. allo allo jii. oui. ma ne. waaw démb dafa dafa am benn affaire bu ma doon wax démb quoi mooy si <laughs> góor jigéen gi. Mhm. malheureusement réseau bi ma baaxul mais xoolal am na jànk bu nekk Suède. ay ñoom Pambay ñoom ñëpp xoolal ay la ñu yor ba pare toog ci yàlla ñu nga bu ñu génnee xoolal coow lu jeex. ñooñu xoolal bu ñu génnee coolu jeex xoolal si ñoom bëri si ay góor jigéen bëri si ay information te le jour lu leer laa la wax dañoo war a génn dugg si xeex parce que ñii mérité ñu dara ñu ngi ay nitu dara du ñu ay nitu diine du ñu ay nitu dara naka la peuple deewoon yow yow nit ñëw rey rey rey say ndaw ah rey ba doyal après yow léegi jéem jéemoo say def dara léegi mu ñëw nga naan ko yow yaay nekk sa xam nga yaay nekk président ak xam nga dig ñu manqué rek mu Amadou Ba Guinéen be mooy ñëw nekk président yow loo si xam loolu si xam yaa ngi toog toog ba toog toogaa bi sax mënoo ko da ngaa wengal toog wax da ngaa wengal moo lay woon yow wéroo mais yow na nga war a ragal yàlla tuuti sax xam nga jéem a xam xam nga nooy doxalee sax mais nekk fii topp si affaire yoo xamante ne tax lan si ay manette non ñi ay vrai doom ay mbaam sax dëgg lañ man nag moom ah alhamdulilah man bokk ma si benn traité loolu nag lan leer quoi mbaa yow bu fekkee yaa may dégg xam naa yaa ngi laaj dooméram ji tegal dossier si kaw table merci. jaajëf ayca ayca ayca ku dugg rek def deux minutes ñu def euh, il est dix ñu arrêté vingt heures dix ñu arrêté dix ñu arrêté. dix ñu arrêté nag ma pelloog waa TikTok dix ma pelloog doomu ci mburu mbaam yi bari na fa ay doomu ci mburu mbaam gis naa ñuy laajte numéro bi 0033 641 02 15 04 salaamaaleykum salaamaaleykum waaleykum salaam hello sa live bi il faut nga fay ko de hello dañoo yow nelaw ñu de nga naan xelaw asalaamaaleykum waaw général waaw ñu ngi ziar waaw ñaari minute rek laa am de jarul nuyoo bi di gudd waa ayca mais dañoo am ay question yu bëree bëree bëri yoo xam ne dañ ko teg ci taabal bi ba léegi ñun dañ cee amagul ay tontu man tontu yooyu noonu laa bëgg fàttalil ko ñi nga xam ne ñoom lañ jagleel loolu laaj yi fa lañ toll suñuy question nañu tontu bopp li lay war a suul yaa ngi dégg. yow rek waaw ma tontu yi fu mu toll ñun dañoo soxla suñu tontu de. ah laaj ko. Ah, fàttaliwaatal ah mënuñoo suñuy rey suñuy doom. exilé ñi ci des. ñi ci des ñu feebar loolu ñi ñu am leen ba pare ñun ñu yor suñuy question teg teg teg suñuy question si ta si table yi ba léegi mënu ñoo tontu mais foog ñu tontu ñu il faut léegi ñu tontu ñu. Marème Faye Sall lañ bëgg xam lan la lan la c'est que pas bi nga xamante ni mooy zéro moins deux zéro moins deux. Eh, dañoo bëgg a xam lan la lu xew quoi. en tout cas question yi il faut léegi ñoom ñu koy tontu. na leer question yi ñan ñoo ko moom groupe M. muntaka Mai mbay ah, si marem fay maki Group m bangok m yena mo groupe m ñun dañu bëgg question yi nañu ci dimbali bo question yi ñun bëgg nañ mu leer de ak borom 40 ans yi borom 40 ans yi nek face ak ah, question yi fo ñu tondu ko ah, ak ak borom borom tv borom euh, mohammed niass question yi dañoo bari de tey ba lay dégg guñ tontu li lay war a suul waaye nañu tontu. em yi moom muut rek lañ mën muut ñoom daal seen em bi moom muut rek lañ ci def muut. ah mais mais mais mais mais da leen rappeler da question yi waaye am na solo de nañ ñu tontu waay samay deux minutes jeex na maa ngi jégalu. jaajëf eh em yi wuyu leen Macky Marème Muntaxa Maayi Mbay si. em yi wuyu leen wuyu leen muut muut ngeen mën muut muut. em yêu Huê lên à, halo, lên halo, à, alo alo alo Dindi halo, casque, halo, halo, Allô Oui. halo halo ñu ngi lay dégg. Salaamaaleykum. Waaleykum salaam. Njiba nuyu.

allo réseau baaxul de. yow ya, rek yow ya ya rek la ñuy déglu de. bon déggul attention am yi dañoo bari de Mansour Mbay Mbay si Mansour Muntaxa Maay Ñas Marème Fay Mansour Fay Macky Sall mooy chef am yi mën naa lim de am yi am yi ñoo ŋànk Sénégal muut rek lañ mën nag muut mëq tane muut mbokk mi demal nga woote ji whatsapp man du ma jël kuy woote appel normal allo once again once again waaw salaamaaleykum waaleykum salaam salaamaaleykum la wax ci les groupe M Mansour si Jamil ah. Mansour Jamil booy Jamil M yi dañoo bari de li ngànk mhm. Sénégal nag M yi la ayca voilà loolu moom dëgg la ah lii xam nga lan la amati amati dëgg ci xeex bi nga xamante ni nit ñi ñu ngi ko doon xeex gars yi di jaay seytaane naan waaw suñu kilifa diina yi nga ñi lii suñu kilifa diina yi nga ñi saaka nekkee na loolu dafa ñëw leeral ñoom fu toll nii gaa bëri ñu nekk ci kaso bi tey fu ñu toogoon ci palaato yi di leen jox valoriser nan waaw suñu kilifa diina yi dañ leen war a respecté nekki naa tey yaa ngi ci kaso bi mënuluñ la dara réew mi loolu moo fi nekk tey ñi ngi nekkaat ci kaso bi amaat xol bu metti naqaru dugg ci kaso ba noppi amaat naqaru jàmbaarloog seen sëriñ si di jëfaru na jëfaru international jëfaru national maanaam ngir alalu àdduna xaalis buñ leen tegal ci taabal bi ñu d'accord ci xale yi ñu rey ñu d'accord ci ressources naturelles yi ñuy jaay ñu d'accord ci lii d'accord ci d'accord ci boobu jamono ñuy xëccoo ay xaalis mu jaral leen ñuy jooy nit ñaa ngi wasin ci ay saret Macky Sall euh, Youssou euh, déggal ma naan Macky Sall jéegi dëgg dëgg dëgg ñi ñoo saaf seen data nday dëgg dëgg dëgg neexul ba neexul waaye ñu saaf seen data nday lañu man maa ko wax ñoom dañoo saaf seen data nday yi bi ñu nekkee ci seen biiru nday ay dëmm lañu man maa ko wax taalibe bu mu metti sa digg la fal nday encore man antuma ak de man li ma metti laay wax mais man du ma xeexal taalibe waaye am naa droit lu ma metti ma ñëw teg ko ci taabal bi man xeexaluma benn taalibe seen job bu yéen ak seen sëriñ moo xam da ngeen mer tey moo xam da ngeen kontaan démb waaw ay dëmm ngeen encore une fois dégg nga nekk fii ni da nga ñuy xeex ba noppi ñuy dem di wu di dem di màggali di gàmmu ji naan waaw bëri na nit ak yu kenn xamul seen dëgg lafal fal ndey encore une fois maa ngi ñas doome xaram la bi ma koy wax fii benn doomi xaraamu Gambie naan dana ma liggéey te ba léegi dara dalagu doomu xaj man may xeexal sama réew nga naan di nga ma liggéey ngir aw sa bu téegal ndeyam bi katt caga Ah, di taxawal di tox yamba di katte caga a ah, bañ ni yaa fi mag rek nga ñëw jiite nit ñi nekk fi di am lu ñuy wax tëmm yi toxkatu yamba yi ngeen doon doomeram man maa ko wax dégg nga taalibe bu bëgg ñëw nga ñëw jël bakkan man joxe naa ko addiya seen job bu ndey waaye bala ci kenn di jóge moom na ngeen xam ne dana am bakkani yi dem ah ñi ay dëmm lañu ñu ñooy toog di jooy dëmm yi ñooy toog di jooy ñu leen ñuy téegal encore ñuy jooyati bu subaa bu ñu wootee ñu demati ah réew mi kañ lay jag du ma sa jeg réew mi réewu dëmm la dañoo yeew juddoo ci réewu dëmm nañ ko xamee noonu waaw nañ ko xamee noonu rek dégg nga diryanke bi seet la nga noq ko ci lal bi am ak moom doom doo leeral lool nga ñëw naan dangay xeex kan ngay xeexal population Sénégal ngay xeexal yow yaa fi àtte ji woon xeex bër ki dem ah tey nga ñëw bëgg taal ay fii ci réew mi dëmm xaraamata njaay bi awsa bu téegal ndayam moom ci bopp moom mooy awsa waaw ku mu metti na téegal ndayam jaa ngeen jëf. kon gars yi kii defal na ma calcul de M nee na M égale menteur mensonge marabout massacre les M buñ paree nag dañuy calculer M yi dama koy jële ci Macky wàcc daanu ji ci Mountakha M yi les M M yi bari nañ de M yi fi mu toll nii moom ñoo ŋànk réew mi mëqata ne muut M yi les M lonko-lonkal ñoo sëpp seen yeel ci kaw ndoddu deretu sénégalais yi em il se la coule douce nag acca nañ yeggali jël quelques nit après nag ñu calculer em ñaata la il faut ngeen defal ma liste des em la liste des em allo allo allo waa salaamaaleykum mbokk mi woote ci beneen téléphone bi foofu duma fa dugal nit wooteel ci 0033 641 02 15 04 jaaral whatsapp maaleykum salaam. oui loolu laa def nii de. ayca non keneen ki laay waxal waxuma ak yow dafa am kuy woote fële. ah yee Jiji. Jiji ñu ngi ziar Jiji. waaw. Jiji yaa ngi may dégg. waaw maa ngi lay dégg. waxal patriote yi. Mhm. ñu def ay groupe ku ñu romb Sénégal déggul olof làkkul olof ñu làmm nday kalpe bi buñ ci fekkee carte d'identité sénégalais téegal ndeyam taxawee na le après topp li ci des. wax leen ko wax wax patriote yi ku ñu fekk Sénégal déggul olof te yor quarante sénégalais ñu agressé ko jël ndey quarante bi dugal seen down est-ce que yaa ngi jëli. waaw maa lay dégg de. loolu laa bëggoon waaw jàllale ko patriote yi. waaw patriote yi dégg ngeen si ma jàllale waat beneen boo leen yëgul. est-ce que ku ñu fekk daal yoru yor mu yor quarante sénégalais te déggul olof ñu dégg ndey quarante bi. d'accord. mu jeex tàkk. jaajëf léegi ma dolli leen ci beneen. ci information bi nga joxe nii dama ciy joxe beneen. xale yi ma yëgal leen mbaa yëg ngeen ne Maay Ñas bi mu toogee ci bopp xilaafa gi ak léegi. lii ci ay Niger Maay Ñas moo njëkk a déstabiliser kawlax Kaolack ba mu daj Maay Ñas yàq na ko ak ay carte ak ay nigérien carte d'identité passeport diplomate carte d'identité passeport diplomate carte d'identité passeport diplomate waa Kaolack vérifier leen li ma leen wax bi maa ngi toog ak léegi ñoom ay yàqkat ñoo raw kañ a ci tool barki rasulaay sëriñ si nee nañ saaga fan la développé le réew waaye ñoom sëriñ si waxuma sax développé seen jabar yi rek njaboot gi moom bu dee jur moom ak ka ñoo ci am développement waaye toppatoo régler seen kër yi impossible ba pare yàq yàq déstabiliser am réew lañ mën maam Aliou calling. Assalamu alaikum. gatsa gatsa ngeen wax rek ay allo. kii aw Jiji. waaw. naka mu. sant yàlla ak ah, muñ. waaw kay Jiji merci beaucoup. Sama man dama bëgg wax benn affaire waaye Milan tubaab yi war ñu génn rek dëkk bi affaire doy waar quoi. baa bi tuddee leen ñoom maaraabu xam nga luy maaraabu mooy picc boobu nga xam ne day taxaw benn place bi day yéexantu pot iram loolu mooy maaraabu baa bi loolu lañ di wooyee maaraabu mooy ku tayal ci doomeraam yi dañuy nekk toog foofu def lu leen neex di nappaaje seen jéeg yi leen di jox ay manetu xaalis di def lu leen neex ci bëgg a jël jeunesse bi sacrifier ko te dund nañ seen dund ba mu jeex ay doomeraam lañu maa ko wax ñëpp ay doomeraam lañu xol yi jeex nañu nit ñi sonn nañu sénégalais yi sonn nañu soixante mille neuf cent soixante ba léegi benn benn benn affaire bi am nous, dem ñëwaat rek nit ñi ñoom dañuy changé rek famille yi yenn famille yi rek ñoom da ñooy ñooy neexle nit ñi dañoo sonn dafa war a dafa war a dagg taxaw bés bu ñu waxee ni Ousmane Sonko duñ ko dugal ci kii bi nañu wàcc tali bi tegal seen ndey ñoom ñëpp mu jeex dañoo sonn waay merci beaucoup Jiji. jaajëf ñu ma baax Imaam ne ko kontaan nañ ci bi. jaajëf jaajëf. jërëjëf yàlla baax na ni man musuma gëm marabu mais dafa gën a leer sama kii tapé amoon yëpp dañ na waaw mais ay doomeraam lañu dañoo bëgg a xamal fu liñ bëgg a jëmee ñi mais dafa war a dafa jeex tak tak dafa war a jeex. jaajëf jaajëf voilà kon gars yi dañuy daal di arrêté fii ma dugal benn extrait wax leen nag li nga xam ne moom la fi Mbaye si Mansour di def muntaka di ko def Maye Niass di ko def ci réew mi ñoo ko Macky Sall ñoo ko bokkule léegi ma andil leen benn extrait ñu daal di nag tëj waxtaan nañ déglu fii ab sénégalais bu soxla këyitam. réew mi metti ma trop mooy manque de respect bu ñuy dund suñu réew dëkk boo xam sénégalais amuñu fi droit. da nga dem police exemple di wuti quarante ñu ne la non non nga ñëw 6 heures du matin nga dëng-dëng xamoo foo jógee nga ñëw 6 heures du matin ñu ne la non non 10 personnes la ñuy jëlan tëj ci ay ful camp elle dort noppil sax ñu dóor la yoo xam ne c'est extraordinaire te nga xam ne kii jëla ko def may leen ma tuuti ma jël mbokk mi parce que woote na ba sonn papa ñu ngi lay ziar waaleykum salaam xaaral tuuti ma dugal la ci ligne bi connected. Allô xaaral tuuti ma dugal la xaaral tuuti ma dugal la gars yi may la ma tuuti dama arrêté woon. connected. connected. allo waxal ma dégg. waaw xaaral xaaral xaaral ma dugal la xaaral bul tuf bi day bañ xaaral coupeel ma woowaat la dugal la. gars may len ma tuuti ken ha ah ken kenn ken euh baal len ma rek dafa am kumay duggal rek baal len ma rek dama koy duggal rek dama tejj dafa am lo ma bëgg wax ñu tejje ko pour ngeen xam seen kilifa diine lan lañ fi nekké ak lan motax tax set selen ñu diko jaamu seen rôle fi ci réew mi. ñu lay siyaar dama xawutoon eh, depuis ma jóge baal leen ma baal leen ma kooku borom audio boobu na ma baal dama doon test rek test laa doon def test test test test gis nga ni paa yi di defee test micro asalaamaaleykum ye allo waaw ñu ngi la jaar salaamaaleykum nuyu naa ñëpp waay ñu ngi laa fay yéen a maa dégg ah? ñu ngi laa dégg yow rek la ñoo dégg ok anyway man uh, seen mbokk laa you know maa ngi ñaawlu lu nekk di xew Sénégal so much that you tam lu ma am pour wax leen mooy Sénégal uh, Gambien Gambien boo leen gis seen biir dëkk bi Gambien yi dañ soxor dañ iñaanee Gambie eh, Sénégalais yi suñ président bi Macky Sall bu mu uh, Rossi dafa dem direct Gambie am fa ay fan ay fan yoyu moy security lañ sign security xawma na yena a ngi dégg olof bu ma laaka you know wa ñu ngi la dégg wow ok so moy seen election si yaa jot ci Gambie yi dañoo rax sen bir nu nu toll lim do ko mun do ko mun a Gambien yi da ngeen Sénégalais yi da ngeen war a da ngeen war a tëj seen ah, naka ko frontières yi da vigilant gambian yi nañ dugat nañ rax lépp loo xamante lu bon la gambian yi ñu ko fa te gambian boo leen gis kata leen deyam taal leen ko soo leen ko mënee taapa sax ngeen taapa ko nga lu ma mhm. information boobu laa am pour wax leen because gambian si dañ soxor te gambian yi suñu adama baro boobu noonu gomut yàlla gomut kenn Macky rek la lu Macky di dem ni daf ko nahari def ci kanami yalla so mom tam na def pexe bu neka pour bu mun pour muna a taxawal Macky Sall pour muna a Macky Sall te sénégalais da ngeen ko wara bañ ñun gambien si ken ken bëggut Macky Sall because Macky Sall lu mo def suñu biir de gabi rek ñu ben ñun amuñ si pexe ñun mom dañ dool da dellu gannaaw ñun dañ dellu gannaaw already so ñu ñoo yóbbuwaale la ñoo bu leen ko nangu tay bu leen ko nangu so this is the thing sorry uh, uh, man suma deux minutes yi jeex nañ merci jaajëf ñu ngi laa sant mbokk waaw tëj naa nag tëj naa ngeen baal ma nag tëj naa waaw ma di leen wax ne mbokk mi li mu wax nii <coughs> côté boobu laa doon bëgg tëjee élection yi nga xam ne yéen a ngi wuti ji ay parrainage xam nga waa ñàkk jàmm groupe M yi nan lañ ko fas yéene muy kii di Mountakha Mbaye Maki, Mai, Maremfai, Musafal, ak Eh, ñoom it seen yooyu laa M yi yéen a ma gën a xam M yi moom yéen a ma gën a xam bu ma ci limee rek mën naa ci jël ñi ma ci intéressé après ngeen mottali ko xam nga lañ fas yéene dañoo bëgg a vote boo xam ne sans les sénégalais guinéens yi lañuy dem jëli maliens yi moom am na ci ay góor mauritaniens yi ñoom daal sous raison bi gambien bi gis nga gambien yi wax nañ ñoom ñoo nar a def vote yi Sénégal mais nag balaa lool daf ci am ci këru kilifa diine yi y compris may ñas nak loolu moy business am may may ci ñi gëna a sakkan ci biir senegal ñu ñu dugal ci ay ay ay ay ay ganayen ak ay nigérien ak ay nangam nangam xëc ci taalibeem yépp ci nationalité sénégalais la leen di berndele may ñas alantuuram nak passeport diplomatique ang koy toj muntaxa sax amna fulla parce que mom Danan passeport diplomat yuñ ko makki jox ci ay doomi gañum lay yem muntaxa fulo fulla amna ko mbay si Mansour ñi ngay gis ñuy cay cay ni yep ñun nak Europe war nañ am fulo gu toll ni xex bi mën nañ ci joxe lu bari xam nga moy lan kilifa yi nañ porte plainte nday sen nday ñom ñëpp ku fi dugg Europe fi wacc ci fi ngay faju ngay nangam nañ la bolé ci dossier pays ñom ci ñi ray boy ci lañ bok parce que ñun nag pour ñaamay am dafa jafe xool leen fii Sénégal. xam nga booy Jamil lii booy bi di wax nii booy Jamil nee na li ma tax a jooy sama papa Njool Fuuta dan ma sama papa Njool Fuuta sama papa Maodo sama papa Maodo am droit féete féete fu mu féete ci dëkk bu am démocratie <laughs> nee na day jaay dàmb nee na lu ne lañ ko wax lu ne lañ ko yàq moo tax photo bi nga jëkk a génne xam nga sa papa Maodo sa baay Maodo liñ ko yàq li mu togg lañ ko yàqal de sa baay Maodo moo taxaw ci kaw diggu nit ñi day ñu ba pare naan ñu ku naqari nga dem naani géej ñu ne ko Maodo doomeram Maodo doomeram donnoo sa turandoo Maodo doomeram géej kenn du ko naan Maodo boo amee 644 dog da nga koy defal garab googu di waaj a daanu toog sa wet booba mbay see nga weng ma ne ko Maodo 644 dog boo ko amee defal koo mbay si géej day faj buñ ñu ko naan loo yóbbul mbay si nga sang ko ci géej gi xool ko ndax du toog rogantiku amu leen baati xam nga kenn saagu ko moom moo saaga boppam kooku nee na moom lay jooyal te ñun féete bi ñu constitution may rey ngeen ci ay nit Maodo kenn rey ko de dafa wax ñu tontu ko ay moromam a fi féete te kenn waxu fi kenn dara moromam yi féete te gore waaye ku log plomb ñu xoj sa ndey ku log plomb ñu xoj sa ndey jën ba ko mool bi ne nan laa la jàppe mu ne daf ma sànnil onze def ca mepp ma ne ko gullu mu tag ci sama caaxoñ yi mu ne ma kirti mu xëcc ma yéegal ma ci gaal gi kon Maodo nappkat dee ko napp ci ñun nag ay lakkatu yaboy lañ lée am toog leen loolu moo fi xew ñun féete rek lañ def rey ngeen tëj ngeen kaso dagg ngeen ay tànk dóor ngeen ay bal génnee ngeen réew mi xañe ngeen jàmm ci péete rek vous n'êtes pas fair play ñun fété ngeen def doxat ñu ñu day leen ngeen kaas yeen da ngeen ñuy ray di ñu tejj dàq ñu réew mi di ñu tekk jamm duñ ko am ta duñ lek ku bokul ci yeen ngeen boddi abib fu mu doon defé waxtaan abib di waawon la doon defé waxtaan ci fami bi la bok lu tax ngeen génnee ko ci yeen fété ngeen fété ci riba mu lank ne duma rek riba ndax sama baay yaruma ci ngeen boddi ko ci yeen du ngeen ko tutu du ngeen ko tas mul ma tax bu len ma taxa wax seen jëfin mo ñaaw li mi ngi ci réew mi gamu la de ta dama len wax lu amul ci réew mi luma lu wax rek mo am kuñ boddi ci réew mi rek pastef la bok muntaka bo bokkee pastef amu tak yow affaire mbey si nga bokko pastef du recevoir may ñas nga bokk Pastef mu walé la mom, mom da dem bay wacc mom prématuré xam nga da ngay jégué yaay prématuré da ngay jégué yaay ko jégué yaay nak yor ji jigen garo walé rek ngay def golo prématuré may maay ñas dégg naa ci couveuse nga nekkon couveuse wax lay bañ ma maa ngi xaar rek wax lay bañ de ku fi wax ku fi kaas fi nga may fekk lima len di wax ñom ñone ci gat sa gat sa lañ tollu kon nag gatsa gatsa to ko ngeen japp lek ko bala ngeen ñoo lek ñu yebbi len li ñu yor yëpp waccu len ngeen xamne ne ñu affaire yi mom archive la day dess du dëgg kon yeen xam nga bu ngeen toge nan sama bay mawdo sama papa mawdo mo ma tax a sama papa mawdo li rek la loolu ma tax a am nga lu ma tax a malen la bëgg wala mu ji ak ñu yor video bi muy bañ mu feñ ay doomeram la ji ak ñoo bon billaay ñoo mëna sul sen seen mam ñi ak a ñoo bon sen mam yi ñëw teg fi tali yu tali ñar ngeen ñëw doomeraam yi baña pomper sen pneu yi mënu leena jaar ci kaw tali yeen aw ñal rek te ñàll wa rek doomeraam yi te kenn du leen ko wax nak waye jamono ji ñu toll lek ñu goqi la ko rek mo fi xew da ngay lek ñu wax la ko ñi nga lekkal ñoo la koy wax bala ngay dem alakhirah lañ koy fi de ak lek alal nit ñi te kenn yegul neub fi lu neub mo fi dul am sax yee ñuy lepp lañuy gokk kat nday sax yépp ci naaj bi ngeen comprendre bab àll ay ay pété rek sama bapp Maodo pété rek dameraam mi ngeen fété ñun ñu fété ngeen dañu ray ñun ray ñu leen kat sendai, nday rek ngeen di mer ci kat sen nday te yéeguñu yaay ken kat de loi la def ngeen di mer te dameraam mi yeen chaque jour ngeen day suñu kaw loosi chaque jour ngeen tak ay dil suñu kaw bu ngeen wote gàmm duulu kessa ngeen def bu ngeen wote magal duul kessa ngeen def amul ci lenn lo leen di wote dini naxé rek naxé encaissé alal sans seen i kër te nit ñi muñ leen yalla te yeen xamu leen yalla benn bu ci ne da ngeen koy lijeenti talibé yi nak ngeen di leen xaaraloo yalla yeen xaaru leen yalla de da ngeen koy nappi di plonger di nuru caméra bi dara du ngeen ci xaar yalla ku ma sa gis li daa ka waxe rek ñe yobul keur yaama di tax duulal la nak xalé yi xey lonk la ya xey lonk la dina duulal nak te duulal yi yëpp duñu tek la nga wax de dayee ci dagalu tuti katta nday bi nga katta sen nday mais serigne ci lek sen alal ji xagn len hôpital yu bax ba fexewu len dund ci rew bi xale yi ndor ay bal ci rew bi serigne si duñ ci wax yoy duñ ko woné dé pay li motax boy yi mer dédé bala ma dee ña génne la ci famille tém tem la malien nga waye man nee len ngeen def ma malien ak gambien guinéen ci yam bu ngeen ma ci def rek lak bobu lay jël comme comme mama bi nak malien ngeen ma rek chaque jour ma buudaa fara sen nday i fara i babé mi fara yoy la len di kat sen nday ba ngeen anar ya kaw kat nday bi mis ngeen ko legi ma yobul len ci Bouda Fra Ibouda Mbivara <laughs> am déet kur yi kur yi garaaw nag laay jël legi mom kat nday bi min ngeen ko damay sul sa data nday min ngeen ko yéen dala ruslootu leen yéen ak sen paye yéen da ngeen di lek ger ba pare taxaw nan xamna li may wax nak comme logal nañ ma ba pare il faut ma wax xamna dina wax ma saga xam nga loolu mooy ñàkk jëm dëgg ñàkk war ma dëgg ak ñàkk diine ak ñàkk yàlla <laughs> loolu loolu dara weesuwul loolu kilifa diine gu dema dem ba toll ci wax wàcc ci caniveau yi naan xam naa lii may wax nag dinañ ma ko saaga bàyyi yow sa bàyyi kañ yoonam new ci yaa loo war a waxal rek bul ñu tànnal luñ lay wax <laughs> dañ lay saaga ak dañ lay xas sa new ci léegi nag gis naa ko raax na nday jeeg bàyyi ji comme xam nga day tontu nag day déglu de comme bàyyi la waxoon ñu ne ko day jaxase nit ñeeg bàyyi parce que bàyyi xeex nag ab bu sept ans Baye ñas xeex nag ab bu sept ans kon moom bu fi nekkee di lekk alalu ger joxo ci Baye tabaxul armeelu Baye tegalul bàyyi karo buddiwul ñax ci kaw armeelu Baye defalul Baye dara taxaw naan lii may wax xam naa dina ma ko waaye dinañ ma saaga Baye Baye dafa lekk ba nga ñuy wutal indiqué fu ñu lay saaga yow kay bu ñu indiqué waaye bii nag génnaat na Nena, na lima naa lii may wax nag xam naa dinañ saaga day dinañ saaga bàyyi waaye nañ xool ba xam ndax saaga day développé am réew waaye yow bu kilifa dina yore ak kër mënu koo jubbanti bu jub njur gu bari dajale ay jabar yu sax béjjën kenn mënu cee juboo doom yi kenn jubóowul doom yi doo doom yi yow nag maa xam nga fan li ma metti ci yow mooy yow séeréer la jur yow bu la yow yow séeréer rek la mënoon a jur ndax aji sara tas taj aji aji saara taj rew mok mamour maamour ca em ba ngeen bok yak mamour ca em ba muntaxaa be bor moom it em ya le bor ba tay delaw ko mbay si taj juma ya ca em ba yen ñep musafal Fall em ba top xale yi ray <laughs> ay meram ngeen rek borom em yi barke rasulaa ñun yéen ak ñi bëgg ray sonu nañ de seen ñet tank yi ngeen samp em bi tak tank yek wacc samp yéegaat wacc samp sanaan ngeen ñu ci wërngël bi génne leen ñu emm wàcc leen ñu ngir yàlla ay waay yal na leen yàlla juutal ni ay double V emm yi yal na leen waa yàlla juutal ni double V yal na seen dee naqari yal na ngeen sukkuraat sukuraat yu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg tamit yal na ngeen sukuraat sukuraat yu yàgg yàgg yàgg yàgg tamit illaahi nañ de coono ji ñuy dund yal na yalla soppi sukurat gu yag yag yag ba mel yu xat suuf tanc leen fu ngeen dee ñu sulli leen firaaw na loolu la fi nekkee woon waaye géej bugg ko ndox suuf bugg ko ku ma sa gis li yal na leen yàlla juutal def leen ay double V mbay si ni nga wenge yal na ci paa yëpp topp baraag bi yal na xëcc ñëpp <laughs> waay waay ñun nañ ci ku mës gis li yàlla juutu doon ay double V M ngeen juutu yàlla na leen yàlla teg natt yoo xam ne dootu leen dëpp da di jaaxaan rek comme double V ku mës a sonn nañ ci yéen de billaay dañoo sonn yéene wuñu woon toll fi waaye dañoo sonn jaaxle rek ngeen waroon ñoo doon ay kilifa ngeen lànk wóolu leen lak wóolu leen fu ngeen toll di fëgg dëng gobbi askan wi yépp xëcc leen seen bopp amatañ kun àndal xeex ñëpp a ngi leen topp ndax ngeen ñëpp lu tubaab bi lijjanti yéen a koy dimbali lu mu bëgg rek yéen a koy dimbali xeexu leen wu leen ko xeex yéen daal malet yi rek malet yi rek malet rek m plus malet m malet m malet gis nga nañu bokkee malet ba m ba m ba ca malet ba gis nga dañ ko bokke m m ki ma defal calcul bi sànq fàtte nga de malet boole woo ko ci de malet tamit emmal la da leen def calcul yu bax way da leen def calcul yu bax dama son ci ni kon gaay burdu bi fi lay yem allah al azim ba suba jam ñu xolati ban doomeer rabu magget moy waxat comme rew mi ñom ñoko teunk ay xalé deug sen day rek xalé ya yaq bu ay xalé yaqé ba pare nañ deug na xalé deug sen day rek pa bu jubanti amatu fi ño ño mën tak suñu digg jubanti leen jubanti bi nak bu xala la ko xala rasul ah ah xaala Idriss rek ñàpp ndey kàtt ndey ibu daa est-ce que dégg ngeen dégg bu gor ñi amul jàmm rek réew gor amatu fi comme yenn suul ay gor nag ay doomeer am des rek ñuy dëgg seen ndey rek jeex na tak amul leneen amul leneen déggu leen pétrole bu bari déggu leen gaz bu bari déggu leen zircon déggu leen koñ yu amul lampe déggu leen hôpital yu tàkkul déggu liir yuy dee déggu leen jigéen yu mënta wasin dégguleen dara doomeeraam yi jigéen li ngeen ci xam rek ñuux rek ñuux rek waaye bu ngeen baaxoon rek ñeenti xalif général rek ngeen baax hôpital kenn waratu fee jooy parce que seen diine moo leen ko mayut hôpital bu ngeen dégg mu jooy Touba waroon na ne krut allo Tiwaawoon Tiwaawoon ne krut allo Kaolax Kaolax ne krut allo Njaasaan Njaasaan ne krut aloo nangam ba ngeen mat ah hôpital nangam kat ben jigen bi nga xamne ni ko yalla terale mo fa doon jur jur ga metti lu ngeen yor sen caisse lan la talibé yi jotta a dugal ñun ñi li taangi fi ki ne taangi fi ngeen dajale lepp jubal ci ndeko bobé def fa hôpital bu muccu ay kon tay ndam ngeen di doon ci nit ñi ndam ngeen di doon ci nit ñi waye doomeraam rami bala ngeen di mëna wotante rek fu pooj noy rek fu pooj noy rek doome xaraam yi tamit jéggi yenn jéggi ngay duggu de Mangai ngay xotti de kay yéy maa ngay weer serviette bu ma dul wer nak la la la maa ngay dug ci jegg de maa ngay dugg ci ñom de ni ñu mënee encaissé noonu lañ mëne gokk nak sen lamiñ ñi ak ñoo mëna lonk audio audio rek lañ mëne audio rek lañ mëne audio rek lañ mën nag xaaral ma yemale ma xotte ba paré nak dugati ci kaya jegg ji nga xamne 40 ans lañ am jëm kenn xamul amatuñu amatuñu avenir avenir audio lañ yor seen avenir yépp audio la xaaral ma yemale ko fi jaggi gi moom boo duggee ci ñoom avenir audio lañ am <laughs> ñooñu ñooñu ay kon ay ay entreprise audio lañ ubbi xaaral may noppi em yi laa amaloon affaire bala jeeg di dajaloo song ma defal ma seen entreprise audio yi te liñ ci yor ay ouvrier lañ ci bari nag dañ ko bu ñu ràccee moom ba di lonkal <laughs> ah man du ma liir dañuy wax rek ma bindal leen du ma ci du ma ci débat du ma ci débat boobu moom copie rek collé du ma ci débat copier collé du ma ci débat du ma ci débat suba live du ma ci débat suba live du ci débat suba live du ci débat suba live c'est tout yii gis nga ñu may avertir ñu may avertir waxaguma de waxaguma de ñu may avertir na nga yem bob kay taxawna taxawna taxawna kon gaay yi ba suba ba suba may la waxtaan ak sama dom wa ci mburu mbam te ma jël sama bol de bis ana sama yet fi ne ci mburu mbaam aw yatt nga yor di wax ak ñom